mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi sant sunu boron tabaraka wa taala di julli ci ab yonentam sallallahu alayhi wa wa sallam di amaat mbégte ci dellusiwaat ci jataay bii nga xam ne dañu fi daje ay mbokk yoo xam ne suñuy mbokki jullit lañ di fàttalikoonteeg ñoom ci li nu bokk muy suñ diine tomb bi nag neen ko déggee jarul guddal mooy défi yi nga xam ne dafa am ci yoonu ki dox jëm ci ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala muy ay pakk yoo xam ne day nekk ci yoon woowu yi mën a téqatal nit mën koo gàllankoor mën a dox digganteem ak fam jëm ak ban taxawaay la jullit bi war a am xëy na baatu muasira bi sax muy contemporain bi nga xam ne moom lañ ko merale am na ci maanaa waaye buñ duggee ba ci biir dëgg nag danañ gis ne daanaka pakk bu bees bu ñuy sampaat ci jamono ji te fekk sampee su ko woon ca la weesu day mel ne amut dañuy beesalaat rekk ak di soppi anam yi waaye jafe-jafe ya amoon démb gi am tey moom daanaka ak soppiku gu rëy amu ci waxtaan wi nag bëgg nañ koo tënk ci ñeenti tomb rek ba ca jëkk muqaddimatun wa qawaid am na daal ay règle yoo xam ne bëgg nañ ñu jaar ci door a dugg ci biir waxtaan bi ñaareel ba taarifu taxaddiyaat définir lan mooy lañ jublu ci pakk yooyu ñetteel ba anwaau taxaddiyaat façon yi nga xam ne pakk yooyu moom la am maanaam ay xeetam ñeenteel ba nag nekk mawqif al muslim min al taxawaay bi jullit bi door a am nag ci défi yooyu nga xam ne ñoo ne ci kanamam kon ñu tàmbalee rek ci bu jëkk bi <coughs> am na ay régal yoo xam ne ci biir alquran ak sunna ak ci déggiinu lislaam ci la nekk jullit buy dund ci jamono ju nekk rawatina sun jamono jii war nga koo làmbaayoo foo toll ku nekk mu nekk fa ak yow ba ca jëkk moo di ann allaha yabtali l abda wal ummata li xikam sun borom tabaraka wa taala day nattu ab jaam ci boppam kenn ku ne waaye léeg-léeg it mu nattu xeet bi waaye su koy def nag xikma mooy tax daa am lu tax suñ ca doon joxe ay misaal ci xikam yooyu danañ gis ne nattu bokk na ci liy jegeel jaam bi boroomam maanaam teg ko nattu bokk na ci li koy jegeel boroomam maanaam li koy jegeel mu am ngërëmam ndax nattu bi su ñëwee rek jaam bi dana fàttali ko boroomam dana bari lu muy ñaan boroomam wéet ak moom tàllal ay loxoom yëg ne moom bindeef la yëg ni dafa am ku ko bind yëg ne ay mbiram daa am ku nekk ci loxoom kon yooyu maanaa su demee bay raaf ci xol li koy delloo si waat ba nit ko fàttaliku boroomam donte luy metti la waaye fekk na lu koy jegeel boromam la moo tax borom bi daf ne wa ida na ala al insani arada wa naa bi janibi wa ida massahu durru fa du duain arid nee na jaam bi maanaam nit su fekkee ne daal dañoo sotti ci moom xéewal yi muy sotti rek day dem ba mu yàgg mu fàtte yàlla waaye nee nag wa ida massahu su fekkee ne nag lu metti dafa tege ci kawam fa du duaain arid nee na day daal di tàmbali ñaan nag ñaan yu yaatoo yaatoo yaatu guddeeg bëccëg ci lu nëbboog lu feeñ lépp xelam day dellu ci boromam kon koku ci li jegeel jaam bi sunu borom tabaraka wa taala di ko fàttali yàlla moo tax wax waxkat ba daf ne wa laqad zakartuka walxutubu kawaalixu مقصود ووجه الدهر أعبر قاتم فهدفت في الأسحار باسمك صارخا فإذا محيا كل فجر باسم nee na dama tudd yàlla fàttaliku yàlla ci jamono joo xam ne mbir yi jafe na lool ba jéggi dayo waaye nee na ma jekki ba njël ma yëkkati sama kàddu sama digganteeg sama boroom tàllal samay loxo jooy ci kanamam ci mbetteel rek lépp lu lëndëmoon jékki-jékki leer kon mettit yooyu day fàttali jaam bi boroomam bokk na ci xikam yooyu moo di ne al ibtilaau masnaun yustaxraju minhu uzamaau rijaal nattu dafa mel ne day usine boo xam ne gaa yi yàlla yu baax yi foofa lañ leen di liggéeye fa lañ leen di toggee ñu génnaat dafa mel ne wurus wurus bu amee yu tabu ci yu teg ci kawam ak ay matières yu ci bokkul wala ay yoo xam ne bokkuñu ci or bi ngir ñu génne loole ci sawara lañ koy dugal bu tàngee rek lu ci bokkul de génn dem wurus kese des fa loolu bokk na ci xikam yi mooy nit ki dañ koy raxas ba mu set wecc lépp lu nekkoon ci moom ci lu bokkul ci mbaax mu jóge ci moom moo tax waxkat ba day wax ba tey ne mu ne wasbir ida huwa adra bika alxutubu wa allab fama ala tibri aarun fi nnaari xiina yuqallab nee na muñal su fekkee mbir yi metti na ba tàng te xam ne natt moom bu dikkee gàcce waru ca ndax kat wurus bi jamono yiñ ko dugalee ci biir sawara wi di wëlbati loola amu ca gàcce waaye su ca jógee rek day set wecc kon yëkkati darajey nit ki ak defar ko ba mu baax bokk na ci jumtuwaay yi sunu borom tabaraka wa taala di ko jëf di jëfandikoo léeg-léeg mooy natt bokk na ci ba tey ann fiihi takfiran lildunubi walsayiaati wa rafan lildarajat natt bokk na ci lii far bàkkaar bokk na ci lii yëkkati daraja itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis boo xam ne mi ngi ci saxiixul buxaari nee na man yuridi llahu bihi xayran yusib minhu man yuridi llahu bihi xayran yusib minhu képp koo xam ne yàlla namm na ci yow aw yiw nee na léeg-léeg mu teg la musiba léeg-léeg mu teg la loo xam ne da nga yëg ni lii lu metti la waaye fekk na booba da lay defar mu waxaat moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis bu wér mu ne maa yazaalu albalaau bil abdi xatta yamshiya ala al ardi wa ma alayhi xatia nee na balaa du dañ di wàcc ci jaam bi ba mu àgg ci di dox ci kaw suuf si te fekk benn bàkkaar nekkatul ci kawam maanaam fekk bàkkaar yépp faral nañ ko ko ba mu far ba tey bokk na ci xëkkam yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koy jëfandikoo ci nattu ab jaamam wala mu nattu aw xeet moo di ann libtilaa alzawaajir tasuuqu l ummata liltawbati wa rrujuci ila allah alibtilaa zawaajiru tasuuqu l ummata liltawbati wa rrujuci ila allah nattu ci boppam luy jàjj nit di ko delloo ci yàlla dafa mel ne lu ñu sàmm mu nangi faaw a génn ñu jajj ko delloo si ko waat mu jaaraat ci yoon bi kon nattu dana wàcc ci nit fekk dafa nekkoon ci njaaxum mu jubbanti ko mu del si waat jub waaye dana wàcc ci aw xeet itam ngir delloo si waat leen ci yàlla moo tax suñu borom tabaraka wa taala daf ne zahara alfasadu fi lbarri walbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiqahum ba'da alladi amilu laallahum yarji'un mu ne yàq feeñ na ci asamaan si ak ci suuf si maanaam ci géej gi ak ci jaww ji tey boo boole ci asamaan sax nee waral yàqute googu ak mbon googu mu ne bi maa kasabat ay dinnaas ci loo xam ne nit ñi ñoo ko fàggu ci seeni loxo ngir sunu borom tabaraka wa taala mosal leen maanaam mu teg ci seen kaw lenn ci li nga xam ne moom lañ doon jëf faye leen ko laallahum yarjiun ngir ñu mën a dellu ci seen borom tabaraka wa sunu borom tabaraka wa taala waxaat ne wala nudiqannahum min aladabi al adna duna aladabi al akbari laallahum yarjiun nee na danañ leen mosal métitu fii ci àdduna woo xam ne dana jiitu métitu ëllëg wa lu tax lu tax adduna wi di am ñi koy teg balaa di ko teg métit nee na laallahum yarjiun ngir ñu mën a jël si waat jaar ci yoon wi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala moom la leen sant ñu jaar ca kooku mooy régal bi moo di sunu borom tabaraka wa taala dana nattu jaamam bi waaye dana dem ba mu yàgg mu nattu aw xeet fekk booba defar leen ak bëgg leen moo tax mu teg leen nattu ñaareelu qaacida bi muy ñaareelu régal bi ann almixana binnisbati lilmumini alsaabiri tanqalibu ila minax nattu su tegee ci kaw jaamu yàlla bi mu muñ ko day mujj soppi bu xéewal ci xam-xam moom abdurahman ibnu abi layla moo jële ci Suhayb radiallahu taala anhu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xadis boo xam ne rawaahu muslim mu ne ajaban li amril mumin yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy wax mu ne yéemu na ci mbirum ki gëm yàlla inna amrahu kullahu xayr mbiram daal lépp lu baax la mbiram daal lépp jàmm la wa laysa zaaka li ahadin illa lil mu'min nee na loolu nag kenn amu ko ku dul ku gëm yàlla ku gëm yàlla dong moom moo mën a am loolu in asaabathu sarraau shakara fa kaana xayran la su fekkee ne mbégte moo ñëw ci kawam mu sant yàlla loolu wëlbati ko soppi ku jàmmi kese ak aw yiw wa in asaabathu darraau sabara fa kaana xayran la su fekkee ne lor moo wàcc ci kawam bakkanam wala alalam wala njabootam wala jege ñaaleem nee na mu muñ ko mu wëlbati ko doon jàmmi kese ci kawam ndax tuyaaba rek la koy indi loolu kon jullit bi moo mën a am loolu kon jullit bi ci ak àdduna ki gëm yàlla bul fàtte ne baat bi al la jëfandikoo waaye jëfandikoo muslim sax foofu ndax nit ki léeg-léeg a jullit la waaye fekk am na lu bari lu des waaye nag gëm moom su fekkee ngëm gi wér na ci xol bi kooku moo tax ñuy wax kooku fii ci dund àdduna gi amu fi aw métit lu dal ci kawam lu ne dana fexe ba wëlbati ko mu doon loo xam ne lu lu muy jariñoo la moo tax day dox ci kaw suuf si ànd benn jafe-jafe amul problème boppam du ubu lenn lu ko jaaxal amul ndax xam na ne ci loxo yi boroomam la nekk bi nga xam ne du def ci moom lu dul lu gën ci moom ki xas mel noonu amatul ay jafe-jafe léeg-léeg mbir ne xis nga ne àdduna tukki na aw yiw juddoo ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kero bi ñu ko génnee màkka moom ñee ko gëm kenn ku nekk ci ku doon xool ci kaw jàpp nga ne musiba am na lislaam ba wutul foofa lay yem foofu mu wàcc madina taxawal fa état ak civilisation boo xam ne soppi na àdduna li ci biiram xaw kon ab nattoo boobu boo xam ne lan la jur mooy loolu al imam ahmad ibn hanbal kero bañ koy jàpp di ko dugal ci kaso bi di ko dóor di ko sonal boole ko ay jéng guddi ak bëccëg muy ndékkee ay yar di ko añe di ko reer kenn ku ne jàppoon na ne sunna jeex na booba mu génne ca kaso boobu foofu nekk imaamu ahli sunnati wal jamaa wëlbatiku nekk ki nga xam ne suñ ne imaamu ahli sunna rek ku ko bëgg ku ko bañ da xam ne moom la ñuy wax kon ibnu taymiya ci biir kaso ba lañ ko tëj ca la nekk ba faatoo ca waaye ñaata ci xam-xam la bind te fekk mi ngi nekk ci biir kaso boobu te su nekkuloon ci biir kaso ba du am jot bu mel noonu doy na rek nga xam ne majmuu fatawa bii nga xam ne moom lañ am tey mu nekk ñaar fukki tom ak juróom-ñaar ci biiru kaso la ko bindee ak yeneen ak yeneen ci ay téere nga xool ku mel ne imaam bu ñuy wax sarax si wala sarxasi ñaari kii yëpp daf cee am ndax dëkk biñ ko askan ñu koy wax sarax wala sarxas dafa am ñaari riwaaya moo tax léeg-léeg da ngay dem ci yenn téere yi ñu ne sarax si am ñoo xam ne dañuy wax ne sarxasi kon kooku tëj nañ ko ci kaso boo xam ne kàmb la sax fam teen bu yàqu ñi dugal ko tëj ko ca téere bi ñuy wax al mabsuut tey nga xam ne ñaar fukki tom la ca kaso boobee ci biir teen ba ci la nekkoon ay dongaam di taxaw ci bunt ba mu di leen ko dikki ci ak mokkalam ñuy bind téere boobu ci loolu la amee kon jullit bi nga xam ne dafa nekk ci kaw suuf te xam doxalinu boroomam lépp lu tegu ci kawam mu doon loo xam ne njëriñam kese lay doon loolu nag mbir bu am solo mu mat bàyyi xel la ci dundu jullit al ibnu asir kenn ku nekk xam na ko abu saada ibnu asir handicapé la woon boo xam ne ñaari tànkam yépp dafa dagg da doon raam suy dox waaye xoolal tey jaamewal usul ci bind téere boobu tamel melokaan boobu jaamewal usul nga xam ne daf cee boole mboolem juróom-benn téere yi gën siiw ci xadis muy buxaari muslim ak abu daawud ak tirmisi ak nasaayi ak muwatta u malik yooyu la boole yépp taalif ko ci benn téere ba noppi bépp vocabulaire bu nekk ci biir boo xam ne bu jafe la mu saraa nga xam ne tey ab delluwaayu dellukat dellu dellukaay la ci képp koo xam ne da ngay gëstu ci xam-xam xadis ci bëgg a xam ndax téere bi nag na ci juróom-benni téere yooyu wala nekku ci ak baat bii nga bëgg a xam lu muy firi boo delloo ci téere boobu tey xam ko yëmul ci loolu mu taalif beneen téere bu ñuy wax an nihaayatu fi garib al xadis muy téere boo xam ne moom it delluwaat ab dellukaay la ci képp koo xam ne daa bëgg a xam vocabulaire yi nekk ci xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yëmalewu ko ci eh, vocabulaire yi nekk ci juróom benn téere yi waaye mboolem xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo dajee baat bu jafe boo delloo ci annihaaya tey jàpp naa ne danga ko fekk ci biir kooku mooy ibnul asir nga xam ne su daan dox day raam day darlu rahmatullahi alayhim ajmain kon al mihanu bi nisbati lil mumini sabiri tanqalibu ila minah ñetteelu qaayida bi an altamkin wal istidcaaf yaxdacaani li sunnati tadaawul altamkin wal istidcaaf altamkin mooy ñu jàpp ndalal la ci kaw suuf en tant que aw xeet nga dominer mboolem xeet yi ci kaw suuf al istidaaf mooy ñu na la ba nga suufe yeneen xeet nekk ci sa kaw bi jëpp ci ñaar yooyu nag muy xeet wu féete kaw ak xeet wu ñu jatt yaxdahaani li sunnati tadaawul maanaam dafa am sunna boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ko teg ci kaw suuf muy tadaawul muy weccee da ngay aaya bu ëllëgee keneen aaya boo aaya tey bu ëllëgee keneen aaya adduna mu mel noonu moo tax borom bi tabaraka wa taala noonu la ko wax nee na in yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun mislu wa tilka al ayaamu nudaawiluha bayna annaas nee na su metit tegee ci sa kaw ah xamal ni ñi la ko tegit kat metit tege war ci seen kaw ñoom it démb wa tilka al ayaamu fari àdduna yi nee na noonu laa ko bindee loolu àllaaxira jëm loolu àggu waaye fii ci àdduna moom dund gi ni mu bindoo mooy tadaawul weccee dañuy ay ay loo yaa aaya tey am doole xamal ne ëllëg ay ga ci des a ngi ñëw néew doole waaye bul fàtte ni jullit bi jamono yi mu amee doole ak jamono yi mu néewee doole benn bu ci nekk lépp daa war a wëlbatiku nekk njëriñ ci moom ndax bul fàtte ne moom dong mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne mooy ki nga xam ne bu metit ñëwee mu wëlbatiku mu doon jàmm bu ëw yu ñëwee itam nekk jàmm ci moom maanaam du bew waaye du saalib itam ñeenteelu ragal bi ann tadaafua sunnatun rabbaaniya am na sunna rabbaaniya mooy tëraliinu sunu borom yi ne ci kaw suuf te du soppiku mukk kooku la ñu tudde sunna rabbaaniya sunan yooyu yu bare bare bare bare waaye bokk na ci nag sunna bu ñu tudde sunnatu tadaafua muy nit ñi ci seen bopp jañante gi ñuy jañante xeet yi ak civilisation yi su kii puusee kii puus kii puus kii puus loolu rek ci la ñuy dëkk ba keroog ñu wuñ sunu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne walaw laa dafu llahi nnaasa baadahum bi baadin la fasadat la fasadat il ardu walakin allaha du fadlin ala alaalamin nee na su dul woon li nit ñi di jëñante léeg-léeg kenn jóg bew ñeneen dalaat ci kawam wala am ku nar a dominer àdduna bépp lu tuuti ñëw dal ci kawam talatul kenn lu dul boppam rek la tal yu mel noonu su dul woon am nee na suuf si day yàqu moo tax ku jóg ku ne te bew wala nga bari doole rek dana am leneen lu taxaw si sa kanam lu la jaaxal yooyu tam noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala bindi lu ko neex nag la koy doxal dem na ba àgg ci buur bu bew ci kaw adduna ba nga xam ne doomu aadama yi fi nekk yëpp domine leen suñu borom tabaraka wa boole ko aw yoo mu domine ko moom bindee bi suñu borom tabaraka wa taala noonu la doxale adduna kenn mënta tëj ñëpp loolu moo tax tadaafoo boobu day am loolu nag léeg-léeg mu metti lool lool waaye fekk nag aw yiw moo ciy juddoo juróomeel ba annahu la tamkiina duna shurut la tamkiina doona shurur ñu xam ne jàpp na la ci kaw suuf nga dominer ko lu am nga fekk teguwut ci kaw ay charte yow jullit dafa am charte yoo xam ne sunu borom tabaraka wa taala nee na su notee ci xeet su gënee su ëppee ci xeet yi suñ fexe ba mu gën a bari su boobaa moom kenn duuti leen mën a not yooyu sunu borom wax na nu ci benn aaya nee na wa'ada allahu alladina minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum alladi irtada lahum wala yubaddilannahum min bacdi xawfihim amna yacbudunani la yushrikuuna bi shay'a wa man kafara bacda dalika fa ulaika hum alfaasiqun sun borom tabaraka wa taala nee na yàlla diggee na ñan la dig alladina aamanu koo koy sàrt bu jëkk yàlla dig ne ñi ko gëm ngëm nangu ne lii ak ngëm la alladina amanu mooy ñi nga xam ne seen bas bas dañ koo teg ci alquran ak sunna ñooñu yàlla dig na leen nee wa amilu saalihaati ñu boole ko jëf-jëf ju baax ñaareelu sàrt baa nga du doy mukk nga ne gëm naa sama pas-pas wér na du ma bokkaale ci yàlla rek jeex na déedéet wa amilu saalihaat bunt bu yaatu la farata moo ci jëkk waaye farata yi nekkul géew bi nga xam ne nit yàlla yu baax yi foofa la ñuy rawantee fa ñuy rawantee mooy ya nekkul farata nga xam ne coobare wala bu la neexoon nga tëdd nelaw nga jekki ba quatre heures wala quatre heures demi nga jóg di julli ba fajar jot di jàng alxuraan di tudd yàlla di ñaanal sa bopp di ñaanal sa mbokki julli bi géew boobee fa la julli di raw rawantee naaj bi tàng jër ngay woor koor boo xam ne bokkul ak kooru ramadan foofa la ñu rawantee jullit bu ñàkk sonn nekk ci ab roq te rus naa taxaw di wax kenn ne ko aajo woonaa dara nga rocc ku jaar ca suuf defal ko lan koy defal te ñaar yëgu ko ku dul yàgg sa borom ak moom kooku ci géew yi ñuy rawantee foofa la bokk kon wa amilu saalihaati buñ ko firee mukk julli ak koor ramadan ak aj màkka ak joxe asaka yooyu mooy li nga xam ne mënta ñàkk ku ko defatul moom sa mbir kenn waxatu lu ci jëm waaye bañ ko defee fa ñuy njëkkantee wala yazaalu abdi yataxarabu ilaya binnawafili xata uhibba loolu la borom bi foofa la ñuy nga xam ne jaam bi ca naafila yooyee lay nekk yàlla nee na ba ma bëgg ko kon foofa fa la ya nekk kon sartu bu njëkk bi mooy ngëm gi na wér dara ci bokkaale ba mu ko jege fenn waaye jëf ju baax ja na yaatu ba jiggi farate àgg ca naafila yi ci mboolem anam yi ca mujj ga ñetteelu sart ba mu ne yaabuduuna ni laa yushrikuuna bi shay'a dañu may jaamu te duñ ma bokkaale ak dara ndax boo xoolee alladina aamanu ji mooy ngëm gu wér ga dafa mel ne làmboo na lii waaye dalay wax ne bi nga xamee ne ngëm gi wér na jaamu yàlla géeg naa fi lay lépp ngay am na sax ca loola nag bu mu dem ba mu yàgg mu dugal ca lu ci bukk bu mu dem ba mu yàgg mu bokkaale ndax li ko waral mooy doomu adama ni yaramam di feebare noonu lay feebare ci wàllu diine léeg-léeg mu dem ba mu yàgg nga amul yëg ne yow de ni nga saware woon ci jaamu yàlla yeeg naafile yeeg def lu baax ak laa biire mbokk julli yi yu mel noonu am na diggante boo xam ne toll nga fi boo xam ne da nga meloon ne la tudd su boobaa gaawal delluwaat ci sa bopp lu vérifier ba xam nii lu ko indi ndax da tàmbalee am ànd dooyu baaxut ndax da ngaa dugal ci sa alal ndax da ngaa def nangam ndax da ngaa sa bopp ba gis ne yow mii kat am na lu dugg ci yow loo xam ne nekku fa woon nga réparer loolu déparaat sa machine daal di baaxaat comme kuy door a génne ci garage kon doomu aadama yi ngir borom bi tabaraka wa mu jàpp ndalal ko ci kaw suuf ak xeetu lislaam ngir ñu mën a dëgër ci kaw suuf faw ñu delluwaat nag ci ngëm gi defar ko ba mu baax waaye faw ñu nangoo sonn ci jaamu yàlla yi te rafetal ko ak naafile yi waaye faw ñu sax ci tawxiid boobu te bañ ci tàmbal dara ci xeeti bokkaale juróom-benneelu qaayida bi te mooy bu mujj bi moo di ann allaha naasiru diinihi walaw kariha alkaafiruun jullit bi war naa gëm ne sunu borom tabaraka wa taala mooy taxawu diineem ji ak mu neex ku mën a neex ak ku mën a naqari diine lislaam daf fiy des pas-pas bu baax daf fiy des ba keroog muy soob sunu borom tabaraka wa taala bu di fi jële addunaam dana am ñu fi des ñoo xam ne ba lu jiitu loola ci lu néew ñu nga fi woon waaye nag jamono yi adduna di tukki nag foofa dana fekk ña baaxoon ñëpp nag suñu borom jël nay xaritam ak nitam ñu baax ndax nee na la taqumu assaatu wa ala wajhi al man yaqulu la ilaha illa allah suñ demee ba dara desul lu fitna ju metti ja ak tukkal àdduna nag ña fa desoon ñépp ci ñu doon wax laa ilaha illa allah te gëm ko sunu borom tabaraka wa taala day yebal ngelaw mu ñëw ngelaw lu sedd ëpp leen ñu daal di nelaw loolu mooy seenu ñoom su ko defee bu adduna tukki ñam ñu bon rek lañu laa taqumu noonu la saxa ca xadis ba ku bon rek ka fay des bu boobaa borom tabaraka wa taala moo koy sàmmal boppam yow kay li la war mooy ñaan yàlla mu boole la ci ñiy bokk ci ñuy sàmm diine ji di ci xëy di ci kër këri di ca liggéey di ca gont ndax loola gëneel la lu la yàlla may borom bi nee na huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini alxaqi li yudhirahu ala diini kullihi walaw kariha almushrikuun nee na sunu borom tabaraka wa taala moo yónni ab yonentam ci njub ngir mu wàcce ko ci kaw xeet wi moo ko yónni mu indil ñu diine ji nga xam ne mooy dëgg li yuzhirahu ala diini kulli ngir mu yëkkati diine jooju ba mu féete kaw mboolem lépp lu ñu tudde diine ci kaw suuf walaw kariha al mushrikuun donte loolu naqari na bokkaalekat yi nee na loolu mënuñu ci dara borom bi nee na yuriduuna an yutfihu nuur allahi bi afwaihim wa yaqba allahu illa an yutima nuurahu walaw kariha al kaafiruun nee na borom bi ñii di jéem a xeex diine nee na dañuy jéem a fay leer boo xam ne yàllaa ko taal ñu koy jéem fay ak seen gimiñ borom bi tabaraka wa taala nee na yàlla bañ na wa yaba allahu nee na bañ lu ne dana mottali ak leeram ba mu àgg fépp fu mu war walaw karihal kaafiruun donte loola dafa naqari yéefar yi nga xam ne gëmuñu yàlla borom bi tabaraka wa taala moo ne kataba allahu la aglibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyun aziz nee na yàlla moo bind ne maag sama yonent nooy not maanaam diineem ji moo fi des mooy not mu ne ah, loolu dana jafe di am na doole de mu ne inna allaha qawiyun aziz yàlla ñaari melokaan la boole foofu qawi mooy borom kattan gi nga xam ne kum bëgg a not man laa not te mooy Aziz ki nga xam ne loo am am kàttan boo bëggoon a not ci moom lu toll nepp kawar doo ko mën borom bi tabaraka wa taala nee na inna la nansuru rusulana rusulana walladina amanu fi lxayaati dunia wa yowma yaqumu l ashhad nee na man yàlla maay dimbali sama yonent maa leen di jàppale ak mboolem ñi ma gëm na wax yàlla nu yàlla boole ci ñi gëm kon fi lxayaati dunia nee na fii ci àdduna wa yawma yaqumul ashhad ak ëllëg bi nga xam ne ñëpp dañuy bokk dekki daje ko suñu borom tabaraka wa kon juróom benn ponk yooyu jaadu na kuy waxtaan ci défi yi nga xam ne moom la nit ñi dund tey nga jël ko mu doon sag làmbaay nga làmbaayoo ko ba noppi door di xool bépp détail boo xam ne yaa ngi ñu dugg nag ci ñaareelu tomb bi moo di taarifu taxaddiyaat defe naa définition yi moom jarut na ci taxaw lu yàgg Euh, taxaddi daal moom buñ ko waxee ci kàllaama arab moo di al awaiq allati tuwaajihu masaara taxqiqi hadafin ma al awaiq allati tuwaajihu taxqiqa aw masaara taxqiqi hadafin ma gàllankoor yi nga xam ne mooy taxaw ci kanam képp ku dox jëm ci dara képp ku am benn objectif di dox ngir bëgg koo amal gàllankoor yi dox ci sa digganteeg moom te doon yu rëy nag maanaam yu sew sewaan yi kenn du ko tudde taxaddi moo tax dañ cay teg ne euh, wa yatatallabu altaxallub alayha baslu juhdin mudaaf maanaam not ko dafa laaj nag coono bu metti ndax gàllankoor yooyu doonul yu ndaw ay pakk la yoo xam ne dañoo sax comme ay buuti garab yu mag yoo xam ne dañoo sax ci digg yoon wi ngir nga mucc ci laaj na coono boo xam ne coono bu mag la kon gàllankoor yooyu rek moom lañ jublu ci fakk yi nga xam ne dañoo nekk ci yoon wi yow miy dox jëm ci lu baax fakk yooyu di la dogale ñetteelu tomb bi mooy anwaaru taxaddiyaat xeet yi nga xam ne fakk yooyu am nañu am na taxaddiyaat yi bu fekkee dañ koy xool yoo xam ne am na ci yoo xam ne kenn ku ci ne da lay gaar yow sa bopp en tant que nit am ci yoo xam ne xeet wi ci boppam lay gaar kon am na yoo xam ne fardiya la am yoo xam ne umma bi lay gaar waaye bu fekkee dañuy xool ci palaasam ak ak ak mawqi am moom taxaddiyaat yooyu am na ci yoo xam ne daaxiliya la am yoo xam ne xaarijiya la am na yu ne ci biir am yu ne ci bitti loolu danañ leeral luñ jublu ci biir ak luñ jublu ci bitti moo tax dañuy tàmbale rek ci attaxadiyaatu daaxiliya muy pakk yi nga xam ne dañoo ne ci biir daa ne ci sunu biir noonu pakk yooyu ne ci sunu biir ñaari xaaj la am na ci yoo xam ne zaatiya la am na ci yoo xam ne mujtamaiya la am na défi yoo xam ne yow dafa daf laa dafa taxaw ci sa kanam yow daf laa dogale yow ci sa bopp en tant que kuy dem kooku boo jëlee li ñu tudde amraadul xuluud xeeti feebari xol yi nga xam ne dañuy dal doomu aadama ci wàllu diine yépp foofu lay dugg taxadiyaat zaatiya néew na nag ku ci mucc waaye li am solo mooy bu la dalee nga xam ko ndax nga mën ko saafara bari nañu wàcc ci kaw xeet wi tey ñu koy tuumaal ñeneen fekk ci ñoom la jóge ñoom seen bopp ñoo ko teg seen bopp moo tax saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain keroog ca bi nga xamee ne musiba mi am am na yonente bi alayhi salaatu wasalaam santaane joxe ndigal nit ñii yéen taxaw leen fii bu leen wàcc ak lu mën a xew su ngeen gisoon malaayika yi di wàcc di këf noonu yi itam yéen doj bi montagne mi fi laa leen taxawloo bu leen wàcc xeex bi tàmbali ñu gis jullit yi gañe yéefar yi yéefar yi tàmbali di daw di sànni liñ yoroon ci ay ngannaay ci ay matériel ci ay xéewal gaa yi daal nga ah, mbir mi de kon jeex na tàmbali di wàcc seen amir na leen bu leen wàcc bu leen fàttali yonente bi sallallahu alayhi wa waxoon ñépp wàcc wàcc ko fa moom ndaw ci la musiba ma am amee mooy Xaalid ibn Walid booba nekkagul jullit mu jaaree ca gannaaw dikk montagne mi nga xam ne moom lañ leen taxawloo woon moom mu yéeg taxaw foofa te bépp xeex boo xam ne xeexu fett la ku la féete kaw moo lay gañe naka ñu féete kaw rek fett yi daal di tàmbali yéefar yi doon daw gis na seen benn kuréel muy benn armée boo xam ne dañ koo defoon fële dañ ko réservé woon moo yéeg léegi ci kaw montagne ne ña doon daw daal di wëlbatiku nag jaamaarloo jullit yi jullit yi wëlbatiku del siwaat gannaaw fekk gaa yi ne ci kaw montagne nag kon ñu nekk ci diggante bi léegi foofu la musiba ma amee plan bi leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tegaloon moom lañ bàyyi waaye mu jaaxal leen nag am ci ñoo xam ne seen pas-pas di bëgg a yëngu ñu ne yonentu bi yàlla ñi koy jam ñuy damm bëñam saxaaba yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu leen di def nangam coow li bari ci seen biir borom bi tabaraka wa taala lu mu leen wax mu ne awalamma oh, asaabatkum musibatum qad asabtum mislayha qultum anna haada bi musiba bi wàccee ci seen kaw ngeen ne lii nu mën a amee qul huwa min indi anfusikum ah ci seen biiri bakkan la jóge qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir borom bi tabaraka wa taala leen lu nekk moo ko mën kon ngañaay yii dal ci kaw jullit yi ñuy yéemu naan nun noo gëm alxuraan ak noo gëm sunna ak ci yoon yoon nan fan lan war a mën a jaar ba musiba yu mel nii di dal suñ kaw buñ del siwaatee xoolaat suñ bopp danañ gis ne lu ci bari xul huwa min indi anfusikum yooyu day del siwaat kon défi y nga xam ne dañoo nekk ci biir bakkan yu mat a bàyyi xel la moo tax borom bi nee na wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kathir lépp lu dal ci seen kaw ci musiba yéen a ko faggu yéen ci seen i loxo te lu bari sax yàlla da leen koo jéggal waaye kon mbir mi dana fi gën a metti wa yaqu an kathir kon bànneexu bakkan nga xam ne nit ki day topp bakkanam rek mu nekk imaamam fu mu ne fii la rek mu ne foofa la loolu yëmul ci mooy yàlla yi rek ndax yi sunu borom tabaraka wa taala baaxe ba ñu góorgóorlu ci alxuraan ak sunna lu bari aaru nañ ci wet boobu ci lu gën a bari waaye bànneexu bakkan ci wàllu xalaat lii daal man xalaat naa ko mooy sama xalaat kenn mënut tax ma bàyyi ko bànneexu bakkan ci ne man lii mooy sama kuréel lu dul moom kuréel boobu du tekki dara bànneexu bakkan ci ne kii mooy sama àndandoo mooy sama xarit lu mu wax dëgg la kii mooy sama cheikh lu mu wax noona la bànneexi bakkan yooyu foofu la seytaane di gañee nit ki mu nekk ci kanamam benn défi boo xam ne mi ngi dox digganteem ak alxuraan ak sunna te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon xubbu dunia wa karahiyatul mawt yooyu ñooy alwaahid lii doyadal nit ki ñàkk ko solo mooy xol bu aju ci àdduna yi kese fàtte àllaaxira jullit bi néew ñu ko bàyyi àddunaam ak li ci biiram ndax yàlla moo ko bind andi ko fi te daf ne ko famshu fi manaakibihaa wa kuluu min rizqihi moo ne ko doxal ci kaw suuf si fàggul alal jariñu ci moo ne qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibadihi wa tayibaati min arrisqi qul hiya lilladina amanu fi lxayaati dunia nee na yu baax yu naat yi nekk ci kaw àdduna jullit yi ñoo ci gën a yeyoo waaye nag fa musiba may amee mooy xol ba aju ci àdduna bu woon gannaaw àllaaxira wala mu jël àllaaxiraam di ko tàggat ngir am ci àdduna kooku mooy musiba mi kon xubbu dunia bi tax ñuy wax mooy xol bi aju na ci àdduna ba lu dul àdduna waxu ci dara mel na ne moom daal kii doon ko tax a jóg bu jaree jaay diineem mën naa jaay diineem bu jaree jaay pas-pasam bu jaree jaay ngoram bu jare jaay am réewam jaral na ko jaay ko ngir lan ngir na am àdduna kooku musiba la défi la boo xam ne nit ki dafa war a xeex ak moom bokk na ci xubbu zuhur xubbu zuhur boroom xam-xam yi nee nañ zuhur yaqsimu zuhur bëgg a feeñ day rëq ndigg yaqsimu zuhur bëgg a feeñ musiba la ci ab ab jullit am na ñoo xam ne luñ def lu mën a doon suñ sañoon ñëpp yëg ne ñoom ñoo ko def suñ la joxoon dara sax mbubb sax nga sol ko yaa ngi ci mbooloo mi sol ko su sañoon ñu xam ne mbubb mii nga sol moom mii moo la ko jox soo ko waxul sax amaana yow boo la joxaat ndax ndax yëgle woo ko te da ko waroon a yëgle kon xubbu zuhur muy bëgg peeñ loo def lu nekk fësal ko ba wane ni lii man maa ko def lii maa ko moom lii su doon ak man du am taxaw di waxtaan ci sa bopp naan man maa man lii maa def nangam maa def nangam nangam ak nangam maa ko fi defoon su ma ko defuloon kon du am xaw ma comme ku ma gën a mel nangam musiba la la boo xam ne dafay dagg nit ki ci yoon wi jëm ci ngërëmul sunu borom tabaraka wa ashahwatul xafiya kooku ci def yi la bokk taabiroon yi noonu lañ ko tudde woon ashahwatul xafiya mooy xobbu riyaasa bëgg ak jiite nga xam ne foo dugg fu ne rek loo nekk lu ne da ngaa bëgg ne ñëpp maa leen jiite bu dee mbooloo yaa bëgg nekk amir ba bu doon ñaar ñuy dox dañoo bëgg ne yow la ñuy déglu bu dee jàkka ji yaa bëgg a doon imaam bi bu fekk fépp foo nekk daal yow boo sañoon yaay ne ca bopp ba benn daal maa ngi ci bopp bi wala keneen ku fa nekk danaa ko jéem a téqatal ba nga xam ne na muy doxee doxin wa du rafet kooku musiba la léeg-léeg nga gis ay mboolooy lislaam yoo xam ne dañuy xuloo ci ay mbir ci lu ñuy xuloo ñu ne ah kii daa bëgg a jiite kii bëgg a jiite nga dem ci jàkka fekk ñuy xuloo am na jàkka joo xam ne xuloo bay saagaandi ci biir jàkka ji diggante ñaari imaam ba saaga yi nekk ci microphone bi nit ñi di ko dégg ci biti ci kaw lan ci ñu imaam bi kii da koy jiima téqatal ndax nee na dañuy nodd su ko defee bu tardee tuuti rek moom mu gaaw taxawal daal di jiite yaa xii fexeel ba bu ñuy nodd yow nga ñëw taxaw bu fekkee noonu la la jiite jaw waaye bu ko bu dee da ngay tardeel nit ñi ba noppi nag doo bëgg keneen jiite ndax ku jiite ku ne nga ne lool xeetu coup d'état la waxoon daf maa bëgg a jële foofu kooku musiba defe naa ne feebar la boo xam ne mi ngi ci askan wi boo xam ne bu rëy rëy la boo xam ne jaadu na nu xeex ak moom ngir dindi ko ba bëgg ñu jiit ñu jëli ko parce li ngay jiite lu mu doon yàlla xam ne ne bu doon am réew sax ñu ne la yaa ko jiite ab natt la ab yan bu diis la aw métit wuñ teg ci saw loos la kon suñ la mayee jàmm yow jiitaluñ la ci loola santal yàlla nekk ci seen gannaaw te fas yéene ne lislaam day dafa doon loo xam ne kenn ku ne fa mën nga faa liggéey yàlla xam ne am na ñu ne ca gannaaw nga xam ne kenn xamu leen boo dikkee ci biir groupe jullit yi ñooñu la ñuy liggéey ñu nekk ci bopp bi nga xam ne ñoom la ñëpp xam sax defuñu ko ñooy organiser mbir ya ñoo koy coordonné ñoo koy lijjanti lay bëgg a yàqu ñoo nekk ca suuf di ko defar ñooñu ñooy liggéeyal lislaam kon bëgg ak njiit kooku défi la boo xam ne mi ngi ci biir xol yi tey mi ngi ci xel yi dañ ko war a xeex alxasad kiñaan feebar la boo xam ne pour nga ne man ci borom xam-xam yi laa bokk wala nga ne ndongal xam-xam laa wala nga ne man di ci ahlu sunna wal jamaa ci laa bokk wala sama pas-pas wér na wala bañ naa biddaa xeet yooyu yëpp taxatu mucc ci kiñaan kon feebar la boo xam ne ku ne war ngaa gëstu sa bopp ba xam dal na lan de su la dalee yëgal ne koo koy défi bi gën a mag sooy bëgg a jéem ko dindi su dajul sa jéego jëm ci sa ngërëmul borom du sori du dem te moom mooy lan mooy xéewal bi yàlla defal sa moroomu jullit nga bëgg mu dañ ba noppi nga am ku mel noonu yow kooku kooku baaxut kii xalaate noonu li nekk ci doomu aadama daa war a jóge ci ñoom man ma am ko nag man dong ah kooku de borom bi tabaraka wa taala man nga koo bëgg yàq ci sa der yàq ci sa pas yàq say tuyaaba waaye borom bi du la ko defal de maanaam loolu moom du ko def dëgg la nit ki mën naa gis mbokkum jullitam am dara mu mu ne ak a neexoon ma am lu mel noonu hmm? ak a neexoon ma am waaye nag bu mu dañ itam nag te it fi nit li ñu xam ne léeg-léeg sax ñu ci jublu mooy ci géewu jaamu la nit ki am lu mel noonu kii daal ni ma ko gisee ak njàmbaareem gi ma seetlu njub gi ma seetlu ni mu ci jàkka ji su ñuy joxe fi sabilillahi ni mu ci jàmbaaree nga xam ne jaral na ko boobu sax la nekk ci këram di ko joxe ko ak a neexoon mu mel ne moom foofu lañu war a indi ñeetaane doomu aadama kon loolu lu mat a bàyyi xel ndax li ma wax léegi moo di boroomu xam-xam sax du ci mucc bu leen fàtte eh, xissa bi doxoon diggante al imam ak cheyxam bi ñuy wax Muhammad ibn Yahya az-Zuhli al imaam al Buxaari dafa dëkk ci Marw jàngee fa Muhammad ibn Yahya bokk ci ñi ko jëkk a jàngal waaye mu jóge fa bàyyi ko fa dem wër monde islamique bi yépp sàkk ji xam-xam ba siiw ci àdduna ba ñépp xam Buxaari mu wëlbati ko ñibbisi bi muy ñibbisi ci dëkkam boobu imaamam imaam ji nga xam ne mooy boroom xam-xamu dëkk ba di Muhammad ibn Yaxya moomu moo jiite ña ko doon teeru ci bitti mbooloo mu bari mu dul jeex ñu àndandoo dikk di teeru si Buxaari biñ ko teeroo ba mu ñëw moom ni doon say xam ba ko doon jàngal moo ko présenté nit ñi ni ko kët ni leen kii di dégg doomi dëkk bi la fii la jànge woon génn fi dem jànge jël si war borom xam-xam bu mag la tagg ko li fi àdduna bépp xam nañ ko loolu su ndam la indi ko ci jàkka ji nag ne ko tey bis bi ma waroon a jàngale chaise bi ma toogoon yaa fiy toog tey jàngale Buxaari toog fa jàngale ci ëllëg sa mu ne ko defaatal noonu mu defaat mbooloo mi di yokk rek ñetteelu fan ba mbooloo ma gën a yokk ba bari mu jaaxal leen liñ déggee ci moom ci xam-xam ci ëllëg sa nag mu ne ko mën ngaa jël koñ bële ci jàkka ga ubbi foofa sa sa géew sa xalqa daal di continuer di jàngale moom Cheikh Mouhamad Ali Yaxya mu tàmbali Buxaari ubbi fële ñépp daal di dem ci Buxaari mu dese lu néew ci mbooloo bésub ñaareel ba mbooloom sa di wàññiku ba ñetti nit des fa ñépp defu géew wër Buxaari te moom gisatul kenn foofu rek la seytaane di ñëwee amatul benn pexe mu yabal koo xam ne daa ñëw di gëstu Buxaari ba xam dana dégg ci moom lenn loo xam ne pas-pas bu yàqu la wala njuumte wala dara loo xam ne danañ ko mën a tasaare ngóor sa ñëw dugg ci biir xalqa bi di laaj rek ay laaj yu dul jeex lu ne mu laaj ci te jamono yooyu lañ toll ci masala bu ñu tudde xalqul Quraan nga xam ne lu doy waar la ku wax li ci jëm sax boo tuur rek da ngay da ngay nërmeelu ñi laaj Buxaari masala lu aju ci loolu ndax lafzu bil quran maxluuq baat la boo xam ne ci waxee nii la mu tontu tontu loo xam ne lu wér la tontu lu wér loo xam ne boroom xam-xam sunna loola la ñuy tontu waaye ngóor sa ñëw ne ah moom day jóom ci masalatu xalqil quran muhammad ibn yaxya daal di koy jël commencé ne sama laa bii rek mooy bu leen ko déglu ndax man kat bi ma ko fi indi damaa defoon ne borom pas-pas bu wér la waaye xaw ma woon ne bi woote yàqub garam loolu doyul mu bind ab leetar yónnee ko buur ba ne ko Muhammad ibn Ismaayil kat wër na adduna ba del si ñëw na di yàq pas-pasi doomu aadama buur bi woo ko mu ñëw mu laaj ko li ñuy wax lu mu doon mu wax ko lépp mu dégg mu leer ci moom bi Buxaari àggalee daf ne ko soo ma joxee ndigal danaa continuer di jàngale soo ma joxee ndigalul bàyyi it danaa bàyyi ndax danaa am aw lay fa sama kanam boroom mu ne ko baax na demal di ma déglu ay fan yu néew mu yónni ndaw ne ko nee na nga bàyyi jàngale mi noonu la arrêté njàngale ma jógee Naysaabuur dem ca ndëkk su ndaw sa nga xam ne fa la juddoo mu toog foofa taxoo këram xanaa gone ya nekk ñam gis mu nekk ak ñoom di dund ak ñoom diine di leen jàngal ba suñu borom tabaraka wa moomu ko nga xam ne xam-xam boobu ci wàllu jàngale ñu néew a ci jariñu su dul woon téeréem bii mu taalif tey muy saxiixul Buxaari xool kiñaan fi fi muy fi muy àgg ak fi muy dugg moo tax ab xam-xam taxu ci mbirum ragal yàlla la ak seet sa bopp ak di fugloon ci sa diggante sa ak borom ak ak xam li jaaru ak li boo gisee may suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne kii lim yor nii yàllaa ko ko may bu ko ci jiim a iñaan sàkkul ci moom sax ñaan ñaanal sa borom tabaraka wa taala mu may la sax lu gën lim yor moom fa li ci nekk mën naa nekk waaye nag lim yor na dañ naa ko xeex naa ko gal gal parce que daal ak tabax la boo xam ne dama ko war a toj ba noppi tabaxaat sama tabax ci kawam kooku moom mooy musiba moo xam ne mooy défi bi gën a mag ci xoli doomu aadama yi tey ñu war ko saafara ngir mën kon daal défi yi nga xam ne yooyu biir la buñ jàpp ne ay noon ñoo toog fële dinu ko ràbbal waaye yu ci bari nun ñii noo koy dund te war ko raxas ba mu set wecc ci suñ xol yi suñ ko dindee ba noppi door a mën a waaxu waaxu bi mën a gaaw door a dox dox bi door a gaaw am na yeneen jëf yoo xam ne ci biir la nekk waaye ci biir société bi la nekk ñëpp bokk ko nag yooyu bokk na ci al jaxlu bi diin maanaam réere diine kenn ku nekk xam na ne njàngoom diine askan wi soxla nañ ko fi mu nekk ndax diine ji xam diine xam-xam la diine yoo xam ne lañ jëkk a wax am yonentam mooy iqra mooy jàngal kon askan wii di askanu lislaam moom dañoo war a góorgóorlu dañoo war a jàng yëmul ci dañoo war a jàng diine waaye dañoo war a jàng diine xam ko waaye dañoo war a jàng lépp loo xam ne day jëmale aw askan kanam ndax dellu gannaaw jullit yi jéggi na dayo te li ko waral ñàkk xam diine ngi ci biir waaye ñàkk a jàng seen àdduna ba xam ko ba noppi dundal ko ci anam boo xam ne mooy bi diine laaj ci wàllu maanu ak jub ak éthique ak melokaan yi nga xam ne moom la lislaam santaane kon réer ci diine mi ngi ci biir waaye al jubatu ala al qawli dëgëru fit ci wax ci diine itam mi ngi ci ci défi yi la bokk tey kenn ku ne rek mufti nga léeg-léeg nga déglu programme yi ñu wax wax sa xalaat mbir moo xam ne ci diine lay aju nga xam ne niñ koy waxe bu doon ci jamonoy saxaaba ya tey ngir ñi man cee wax dañuy daje dajale muhaajiroon yeeg lamsaar yi déglu leen ci door caa mën a wax nga dégg ñi ci mbedd bi kenn ku ne man de nii laa ko gisee kee ne ko nee de laa ko gisee kii de nee laa ko gisee nga gis ay doomu aadama yoo xam ne kenn xamul itam buñ jàngee diine ci àdduna ak luñ jàng ñu am fitu taxaw di ubbee ci bépp masala moo xam masala bi mujju xeet wa da caa aju wala musiba yu mag man da caa juddoo seen yoon nekku ci dañuy laaj daal ñu toll rek kooku ci mbirum fooye diine ci la bokk bokk na ci kasratul mudillin bari ñi nekk ci kaw suuf di réeralaate ci kaw diine xam nga ñu jàng diine bu bariwul ndax nit ñi ci diine day yomb léeg-léeg nga gis yor ay diplôme yu mag a mag a mag a mag a mag waaye ci leneen la ko jàng jàng ko ci diine te am na respect respect boo xam ne dafa respecté waa diine parce que loolu itam nag moom lañ juddoo fii moom lañ yaroo mooy ku gis ngay kër kër yi ci diine nag dañ lay respecté nga gis koo xam ne jàngul dara ci diine waaye sol na mbubum diine wala bokk na ci kërub diine ñëw fekk kookee nga xam ne boroomi diplôme yi jàng ba war a mën a jëriñ xeet mu ñëw xëcc ko di ko dugal ci yëfi gone yoo xam ne kenn xamut lu mu doon ci àdduna yàq addunaam yàq léppam léeg-léeg ci côté njabar la koy jaare léeg-léeg ci côté exploitation la koy jëriñoo la koy jaare li ciy xew ci ay xew-xew kenn xamul lu mu toll xam nga am na fi waa joo xam ne bu yàggul rek ku dem ba nekk chef d'agence ci banque di topp ay gone yu mel noonu nga xam ne xel nit ñu jàngul xamuñu dara ñu ñëw di la ndax di la dugal ci ay yëf ba dugal la ci xeet xeeti jabar ak yëf yuy gëlëmalaateeg ñi ñëw di ko muy tibb rek di leen jox di tibb di leen jox rek ba ci banque bi lépp jeex ñooñu dem réer ñu xëy jël yóbbu ci koo xam ne yow lii nga jàng ci la sa xam-xam loolu day yëgal nit ñi ñi nga xam ne dañ leen di jàngal xam-xamu àdduna moo xam ci économie la jëm moo xam ci politique la jëm moo xam lu mu a jëm jaadu na jaadu na suñ biir école yii ndaw ñi jàng di dugalal leen ci xam-xamul diine ba kenn dut leen ci man a nax bu dul woon dara lu dul ñu bañ leen cee mën a nax sax di tas réew mi ci turu diine rek loolu jaar na ko jàngal leen diine yar leen ci ba ku ñëw bëgg laa nax ci turu diine nga ne ko ah loolu nag moom xam naa lii nga wax nii xam naa ne pas-pasub lislaam nangam ak nangam ak nangam la wax te sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa ñii def yooyu koo ci wax loolu mu dox li ñu bañ a dégg mooy alquran ak sunna koo ci wax rek muy jum bi nga xam ne da leen di xuymet rek ñu daw kon kooku euh, lu ma ta bàyyi xel la loo xam ne lu jaadul euh, bokk na ci yooyu itam zahiratul ghuluw défi yi nga xam ne dañ koy dund ëppal ci wàllu diine léegi danoo nekk ci àdduna joo xam ne dafa xëttaloo dañ daan wax ne àdduna bi dafa mujj mel ne ab ab pariya maanaam benn village waaye léegi weesu na lool daa mel ne ab xayma daa mel ne benn tànt la léegi ndax nii mu xëttaloo internet beeg la ca aju lépp bépp xalaat buñ jël di ko tasaare ci biir internet am na ay ndaw yu nekk ci biir ay rokk di ko jàng nga di ko déglu te ña koy tasaare xamul ñu mu doon ci àdduna mën naa doon ñoo xam ne màbb diine leen tax mën naa am ñoo xam ne tas euh, liggéeyu lislaam a leen tax a jóg waaye ci turu islaam lañ koy waxee ay ndaw di jàng xalaat yu diir yu teeng yu jéggi dayo yooyu di ko fas mën a jóg di def ay njaaxum ci turu diine rawatina di ko askan ahlu sunna wal jamaa kooku mën a ci défi yi nga xam ne yu mat a saafara ci la bokk maanaam ëppal ci wàllu diine moo xam ci wàllu xalaat la moo xam ci wàllu pratique la diine ji dañ koy jàng ci alquran ak sunna jàngee ko ci boroomi xam-xam waaye moyens yi nga xam ne moo tasaaroo tey ku ca yem nga xam ne guddi ak bëccëg xool ay site xool ay ay yu mel noonu ca nga yem da nga xëy fii gàddu sa jaasi wala nga gàddu sa fetal koo dajal dal ci kaw wala ko ndax da nga ne ñëpp ay yéefar lañ kenn nekkatul ci diine lislaam kooku musiba la moo xam ne ñu ngi koy dund tey te war nañ ko bàyyi xel te nag saafara ko ñu ngi koy yaakaar ci borom xam-xam yi ak jàkka yi ak njàngalem lislaam moo xam ne mu wér mu tegu bokk na ci défi yooyu nga xam ne sociétal la maanaam société bi dañ koy dund moo di zahiratul irja mooy bi jaama bi jàkkaarloo ak bi ma doon wax léegi ëppal ci wàllu diine beneen bi mooy yées ci wàllu diine ndax am na ñoo xam ne kat dañoo jàpp ne ngir nga xeex ñi ëppalit mooy nga xëcc leen daanaka ñu bàyyi diine nag maanaam delloo si leen su nit ki demoon ba toog ci taabal ñi koy séddale sàngara mu jóg dem sax ñu ne kii moom dafa ëppal ah déedéet maanaam dafa am lu nekk ci diggante bi loo xam ne moo gën yées waaye àggul nag ci ëppal loola mooy lislaam wa kadalika jaxalnaakum ummatan wasata li takunu shuhadaa ala nnaas wa yakuna rasulu aleykum shahida yàlla daroo def na na nekk xeet wu war a digg nga xam ne duñu ëppal waaye nag duñ yées itam ba lu ñëw rek ñu jàllale ko bokk na ci def yooyu nga xam ne bi dañ koy dund it al furqa al furqa taqali ko kuréel yi kuréel yi nekk ci biir diine ji ak niñ mën a tudde kuréel ak niñ ko jàppee su fekkoon ne rek kuréel la bu ñëw dajale mbooloo di leen jàngal alquran ak sunna jàngal mu wér tur yi du lor du lor dara ndax da lay wóor kuréel bi nekk fii ak ba nekk fële ak ba nekk fële su doon junniy kuréel sax ñoo bokk lu ñuy jàng ñoo bokk lu ñuy def kon dàqale aw xeet amu ci te kuy bay ci benn tool kii dal ca koñ bële kii dal ca bële kii dal ci bii mu wóor ne benn tool bi ngeen bokk nekk di jëfandikoo même matériel bi ngeen di jëfandikoo bu yàggee da ngeen di daje ci diggu tool bi rek mu nekk genn mbay te loolu lañ bëgg waaye nag su fekkee ne duurut loolu nga xam ne luy tàqale xeet wi la ci seeni i pas-pas tàqale leen ci seen i jaamu yàlla tàqale leen ci seen i jikko taqale leen ci lépp loo xam ne lu waroon a boole ab jullit la nga jut indi fanatisme boo xam ne kenn ku nekk da naan daal roq bu xat bii ma nekk mooy lislaam ku fa nekkul bokkoo ci diine lu mel noonu mu musiba la kooku ci défi mag yi nga xam ne des ko war a xeex mu jóg fi ci la bokk bokk na ci alfawdawiya wa giyaab tansiq anarchie bi nga xam ne lu bari ci ñuy liggéeyal lislaam dañ koy liggéey tey benn coordination aku jàppalente néew ci doole lool mbooloo yi nga xam ne ñoo bokk lu ñuy liggéey ay tur waru a nàqale war nañoo mën a góorgóorlu ba bokk ay programme ci seen daawa ci seen liggéey ci seen lépp loo xam ne dañuy jàkkaarloo moom war nañoo mën a ànd nekk soxfan waaxidan kal bunyaanil marsuus benn sappe boo xam ne ni sappe julli yi mel suñuy julli nga xam ne kenn du ne kii ci mbooloo sàngam la bokk kee ci mbooloo sàngam la bokk activités war a dem ba bokk noonu ba mel noonu te des cee war dox te dox ci rek waaye rek lii nuy gis moom ko war a saafara bokk na ci défi yi nga xam ne ñu ci biir société bi te duñ ci tuumaal kenn bàyyi keneen waaye ñëpp la gaar wala ñépp la mën a gaar al infisaam an nakib bayna fiqhi al waaqi wa fiqhi al waajibi fi al waaqi ñàkk xàmmee li tudd tudde fiqhul waaqi muy xam réalité ak li ñuy tudde fiqhul waajibi fi l waaqi muy réalité boobu boo ko xamee ba àggal lan moo ko war nag ndax léegi danoo toll jamono joo xam ne fiqhul waaqi ñëpp ko xam ñëpp ñëpp a ko am léegi nga xam li xew gone ga gën a tuuti fii tey nga xam ne jàngul dafa dara bu duggee ci biir internet bi mën na la nett li yay xew Pakistan nett li yay xew Yaman nett li lay xew feneen ak feneen bu toogee ci télévision nett la ko portable am bii mu yor di ko wuyu bu ko yoree nii di manipulé ba su nees tuuti mën na laa jox xabaar yoo xam ne Chine lay xewe wala Australie lay xewe kon léegi xam li xew moom doonatul lu doomu aadama di damm waaye en tant que nag yow ab wootekat ab jàngalekat ab yarkat li xew tey lan moo fi foofa la yëf ya nekk ban taxawaay lees ci war a am foofa la yëf ya nekk kon foofu ab liggéey nga bu rëy boo xam ne défilé ci défilé tey ci askan bi ne yi xew tey ban position lañ ci war a am julli di lan lañ war a mën a xew ndax ñu yewwaat jógaat taxaw mën a jëmaat kanam kooku défilé boo xam ne ab liggéey bu rëy rëy rëy eh, bokk na ci défi yooyu غياب الفقه في التفريق بين ما ينبغي أن يكون وما يمكن أن يكون ñàkk xam wala ñàkk taqale li war a nekk ak li mën a nekk daa am lu war a nekk nga xam ne lii moom moo jaadu woon ne mbir yi nii la waroon a demee waaye nag fii nga toll lii moo mën a nekk ñàkk a xàmmee loolu day tax li war a nekk nga ne faaw lépp nekk fay la loolu mooy dem ba jur nag ay xalaat yoo xam ne dana jéggi dayo boo gisee yenn fatwaay yi nga xam ne dañuy xëy xëy benn bés dem ba ay mbooloo di ci juddoo sax teg xëy xëy benn bés ne lépp loo xam ne am njàng la mu dul njàngum lislaam dafa xaraam loolu ay fatwaay yu génn la lu tax muy am mooy ñooñu dañoo xàmmeewut li war a nekk ak li mën a nekk waaw loolu mënta nekk dañoo dem ba nekk foo xam ne ay askan dañoo taxaw société taxaw ay réew taxaw ñi koy gouverner ci loo xam ne du lislaam kooku mënoo xëy xëy benn bés na tey jii ñëpp dañoo war a àtte wal islaam dañu jóg fi soo ko defee fitna ngay taal wala loolu sotti kon faw war nga xàmmee li war a nekk ak li mën a nekk li mën a nekk nag boo ko xamee te xam li war a nekk da ngay liggéey fa nga toll te def noonu ba keroog loola di mën a yëw mën nga koo fekkee say sët mën nañ koo fekkee sa sëti sët sax mën nañ koo bañ a fekk ñoom képp bu kañ la mais yow fexeel ba boo dajee sa borom mun ne waaw yow ba nga nekkee fële gis fa nangam ak nangam loo ca doon ah, yàlla maa nga doon digle lu baax di tere lu bon de maa nga woon di jàkk ji di xutba de maa nga doon jàngale de maa nga doon dajale mbooloo ma di wax ak ñoom de yaroon naa sama waa kër de yaroon naa sama njaboot de ñu ne la kon yow su jaan wàcc na waaye kenn du leen lu tax daanee doo gouvernement ya toj université ya daal di fay indi l'islam nit ne di ko loolu moom borom bi du la ko laaj boobaa parce que defoon nga li nga mën kon faw nga xàmmee li mën a nekk ak li war a nekk loolu nag fiq boo xam ne ñàkk koo am ci la bokk tey bokk na ci defi yooyu itam nag riyaabul xukmi bi ma anzalallah li nga xam ne dafa dal askanu lu bari ci réewi jullit yi nag tey xam nga lislaam ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono saxaaba yi ci jamono mën nga wax ba ci jamono yi nga xam ne état turquie yi ci lay ci lay daanu muy osmaani nii yooyu yëpp l'islam lañ doon attewoo biñ demee ba wàccee l'islam mu daanu nag ñu indi laïcité di ko wàccee di ko attewoo nag teg l'islam bële kooku it défilé boo xam ne la chaque année indi na lu bari ci ay fitna ci biir jullit yi indi na ay xeer indi na ay njaaxum ay nit tegee nañ fa loo doomu aadama yi ci kaw ne attewoo lu dul alxuraan indi na daal njaxas lu bari ci biir askan bi ci kaw bàyyi boo xam ne jullit yi bàyyi woon nañ ko attewoo alxuraan ak sunna woon ko gannaaw kon kooku moom itam défilé bokk na ci défi yi nekk ci biir société bi it taysiru radail taysiru arradail wa taasiru alfadail yombal lu bon ba wa jafeel lu baax loolu dafa fës ci suñ société yi ki jóg bëgg a bon daf koy yomb lool fu mu geesoo rek mën naa mu daal di ci biir waaye ki jóg bëgg baax nag day bëri lu yàgg door a mën a baax day jóg lu yàgg door a baax bokk na ci jëfi yooyu muawiqaatu tarbiyati nash ala al mabadi al gàllankoor yi nga xam ne day dox suñ diggante ak mën a yar njaboot gi ci lislaam gàllankoor yooyu ay jëfi yu mag la jumtuwaay yi ma doon tudd léegi mi ngi ci biir presse mi ngi ci biir moo xam bu ñuy seetaan la wala bu ñuy déglu la wala bu ñuy jàng la yooyu yëpp doon na ay gàllankoor tey ci ndaw ñi nga mën leen a man leen a yar mën leen a teg ci siraatul ñi jub loolu bokk na ci li gën a jafe kon lii boo ko seetloo ay jëf la yoo xam ne euh, mi ngi jaamaarloog askan wi ci biir société bi ñu di ko dund kon loolu mooy moom lañ tànn ci li ñu tuddee ak taxaddiyaat al daaxiliya ñu ñëw ci at taxaddiyaat al xaarijiya Euh, taxadiyaatu xaarijiya mooy jëf yi nga xam ne ca bitti la ñu jóge ca bitti la ñu jóge yi jóge ci bitti nag ñaari maanaa lañ ko jox fii am na xaarija e, al itaar as sunni am na yoo xam ne dañ koo tudd ca bitti ndax jógewul ci biir ahlu sunna waaye daa jóge ci ñeneen ñoo xam ne même suñ nekkee ci biir réew mi dañ koo def ci kanam ahlu sunna ngir ñu bañ a yooyu bokk na ci tashbihu surati ahli sunna bil asmaai wal awsaaf al mustaraa ñaawal derul ñi nga xam ne ñooy jéem a góorgóorlu jóg jëm ci alquran ak sunna wutal leen ay tur wutal leen ay melokaan yoo xam ne yooyu lañ leen di joxañu biir ci biir société bi kooku ci defe yi la bokk fabrakatu tuham wa ramyuhum biha juzaafan fabriqué ay tuuma yoo xam ne dañ leen cay tuumaal am na dëkk boo xam ne jaral na nit ñi dem nañ ba àgg ci nit ku bind ab leetar di ca araamal julli ci lenn ci jàkka bind ab leetar di ko tasaare di ko séddale wane ne ñii kët ñii tuddoo nangam ci biir réew mi ñoo ko bind yàlla def suturaam akuk feeñalam bañ xam ka ko bind foofu mu bokk ca biir ñooña la mu bokk ca biir ñooña fekk lu ci jublu woon mooy ne yàq derub ñii nañ nit ñi jóg dal ci seen kaw parce que ñoom ñooy def lu mel nii kon kooku musiba la moo xam ne lu lu doy doy la ab jullit jóg bokk ci kuréel di bindub leetar ci turu beneen kuréel bu bokkul ak sa bopp wane ni lu bon lii ñoo ko def kon war ngeen a jóg ci ñoom te fekk yow yaa ko def kon loolu lu mat a bàyyi xel la bokk na ci istixdaamul i'laam al jaair diddahum jëfandikoo lépp loo xam ne xeetu média la rawatina ay rajo ngir di wax ci ñooñu wax joo xam ne wax ju ñaaw yooyu ay mbir la yoo xam ne day jóge ci ñeneen ñoo xam ne dañ koy wax jëmale ko ci ahlu sunna ci seen mboolem kuréel yi ñu tudde kuréelu ahlu sunna fii ci Sénégal eh, kenn ku ci nekk boo xëyee yaa ngi jaamaar lu mel noonu ba ngoon loolu nag lenn rek la ci waaye du lépp yeneen yi nag taxadiyaat xaarij yi maanaam lu ma jublu ci défi yoo xam ne dañoo jóge ci bitti mooy yoo xam ne ñi nekkul ci biir lislaam ñoo koy def ñu nekk ci biir lislaam am na défi yi muy ay pakk yoo xam ne dañ koy jël di ko teg ci yoonu jullit yi ngir nañ bañ a euh, jëm kanam suñ delsee xool li weesu lépp ci ay défi yoo xam ne tudd naa li tax ma waxoon ne ñu bañ a jàpp ne loolu tey rek la xew yii ma fi tudd benn boo jël bu ne boo delloo ci gannaaw da gis ne lu daan xew la yii may bëgg tuddit boo ci gis bu nekk da gis ne ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la tàmbali woon ba ci suñu jamonoy tey ji kon taxaddiyaat yi nekk xaarija daairatul islam buñ fàtte ne noonu lislaam dañuy suubu wépp yoon wuñ man ngir lislaam ca nam mel ak nam selle nit ñi mu bañ a jàlle noonu fa ñoom nañ fexe ba nañ ko nam mel dëgg dëgg dëgg bu ko nit ñi gisee noonu parce que bu ñu ko gisee noonu dañ ciy dugg de moo tax fexe yu man yu nekk dañuy fexe ba lay feeñ nit ñi di ci teg seen bët day wuuteeg jawharul islam parce que jawharul islam bu feeñee dëgg dëgg dëgg jullit yi dund ko ci seen i pas-pas dund ko ci seen jaamu yàlla dund ko ci seen jom ak seen liggéey ak seen xam-xam dund ko ci seen jikko yu rafet ak seen jëflante bu sell melokaan su ko jullit yi l'islam duutu am frontière ña nekk ci bitti ñépp dañuy dugg si parce que danañ gis ne lii moo baax ci doomu aadama fii ci àdduna même boo gëmut àllaaxira sax da nga gëm ne moo baax fii ci àdduna boobu nga ñëw dugg si ci ngir lool loola nag noonu lislaam yi bëgguñu seen doom yeeg seen askan wi ñëpp ànd màbb dikk dugg si ci biir lislaam moo tax seen bëre bépp mooy lay feeñ ñi di ko tuddee lislaam la doon lu ñaaw na doon lu ñaaw loo xam ne fu ko gis da nga koy ragal wala da ngay daw wala da ngay jàpp ni ñuy musiba suñu ne jullit bàngoo ñu ne proykat bàngoo loolu ab jubluwaay la objectif la boo xam ne jullit yi suñ muusul tey daañu fexe ba noonu la ñuy dem te nag ñi koy jéem ñi ngi ciy def luñ mën lone de eh, bokk na ci yooyu ad ila tanazulaat wal muhaadanaat wal iltiqaa fi muntasaf at-tariq bokk na ci wane ne yéen daal da ngeen a war a ñëw yéen ñëpp comme que nun ñëpp ay nit yi nu li ñuy tudde diine ñu teg ko fële am na ñoo xam ne seen seen gis-gis ci ne jàmm mën a am ci àdduna tey mooy boroom diine na bàyyi diineem ku gëmoon leneen na bàyyi leneen li nu boole muy àdduna ak bachariya ay doomu aadama lan nan jël lool rek dund ko ah jullit bi ku ko bëgg bàyyi loolu diineem du ko mën a bàyyi lu muy dund lu nekk ca la waaye loolu mi ngi am tayit loolu yemul nag tey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ ko loolu dikkoon ni ne ko léegi dañoo bëgg yow suñ xërëm yi yi ñuy jaamu nga am yoo ciy wax bul ci waxati dara kaaba gi nun ñëpp a ko bokk kaaba gi yow da nga koo gëm nun dañ koo gëm nuy ànd di daje foofu di fa jaamu ngay jaamu yàlla ni nga ko bëggee nu nuy jaamu yàlla ni nga ko bëggee suñ fa jógee nga bàyyi nu nuy jaamu suñuy xéram yow itam nga dem saw yoon seetlu la neex nga dem yonente bi sallallahu ci loolu ci biir xalaat yi borom bi tabaraka wa ko waddu law tudhinu fa yudhinu ñii liñ bëgg mooy nga wàcc ñoom itam ñu wàcc ci diine yow itam nekkatoo ci diine moo tax borom bi waxaat ne ko in kaadu la yaftinuunaka an illadi awxayna ilayk xaw nañ laa dugal ci fitna ba nga nar a bàyyi li ma wàcce ci yow loolu mooy lan mooy woote ci tawxid li taftari alayna gayra ngir nga duural lu lu bokku dëgg lañ wàcce ci yow fii wax ju tàng la yàlla di wax ko yonentam ñii wattu leen ndax xaw nañ laa dugal ci nga nuy duural di fi bàyyi li nga xam ne moom laa la wax yu wa idan la taxaduka xalila loolu soo ko nangu woon rek ñu nangoo doon sa xarit tey maanaam bàyyi nga tudd yi ñuy jaamu tey doon ay xërëm waxatoo leen ne ngir ngeen am tawxiid da koy bàyyi su fekkoon ne bàyyi nga loolu waxatoo ko rek la taxadu ko xalila kon nga daal di doon seen xarit daal di doon benn kooku mooy tanaasul bi waaye nag ndimbalu suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne walaw laa an laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila su dul woon ne maa la dëgëral kay kon de da nga xaw a jàng tuuti jëm ci ñoom ndax lu tax ñu wax ko loolu mu toog di xalaat moom alayhi salaatu wasalaam dañ ko joxe proposition boobu daf cee xalaat xalaat boobu rek ci la ko yàlla di yedd nii fi taasi da leen warul daan toon ne leen loolu mënta nekk mu ne idan la azaqnaaka difa alxayaati wa difa almamaati thumma la tajidu laka alayna nasira ci bokk na ci ay yi gën a tàng ci yàlla jaamaarloo ko yonentam di ko ko wax mu ne ko soo jéngoon jëm ci ñoom danaa la teg mbugal mum adduna ak mbugalum àllaaxira tey doo gis kenn ku la mën a dimbali kon mbir bi woyefut lislaam nag laa ju kenn mu tanaasul nag di wàcc li ñu wax ñu ne naa bàyyi la ma nekkoon ñëw fekk si ci ngir bëgg a juboo déedéet nag lislaam du moom bokk na ci ñi jëfandikoo istifzazu almuslimina wa jarruhum ila xawdi maarika gayri mutakafia xëcc jullit yi jëmale leen ci tax a def njaaxum tax def def loo leen ay njaaxum xëcc leen ba dugal leen ci guerre yoo xam ne attanuñ ko mënuñu ko kooku ci musiba yi ci la bokk moo tax léeg-léeg musiba di am dessin yi ngay dégg ak waxi ñaaw yi ñuy wax di ko jëme ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp ay fiir la yoo xam ne li ci bëgg mooy jullit yi nañ nañ wane ay melokaan yoo xam ne ñi nekk Occident fépp dañ naan ñii daal ay nit ñu yeewu wuñ lañ ñu xamul dara lañ ñoom daal seen réaction toujours daal mooy rey ay doomu aadama taal ay tabax def ay nangam yu mel lool lañ ci bëgg ndax melokaan boobu su amee ba siiw ci jullit yi rek ni ñii nii lañ mel ñoom lañ bëggoon am nañ ko waaye su fekkee ne am ngeen dalu lu ñu mën a def lu nekk ngeen xool la ca nekk lu positif ngeen doxe ko noonu la ca doom lu lay lor ci sa jikkoog sa melokaan wala muy lor image u lislaam nga wattandiku loola loolu su amee yow la seenu fiir jàpput waaye lu dul loolu fiir nga nag day jàpp moo tax mu ne wa in kaadu la yastafisuunaka min al ardi li yuxrijuuka minha dañ la bëgg a istifsaas li ñu tuddee gëf gëf mooy xëcc la nga topp ci dara ba defe ne yaa ci nekk boo génnee ñu jàpp la dal ci sa kaw bokk na ci yooyu siyaaxatu l ittihaamaat wa ixtiraau al munafira sàkk ay tuuma yoo xam ne dañ koy tër teg ko ci kaw jullit yi te fekk ñoom defuñu ko Quraysh bi nga xamee ne dañoo gis ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi woote te Màkka béréb la boo xam ne arab yëpp dañ fi ñëw maanaam xeeti arab yi fu nekk lañuy jóge di ñëw Màkka te moom Màkka la nekk te ñoom buñ dikkee faaw daañu laajte yonente bi ñu dégg fu mu nekk kon foofu waa Quraysh seeni yéefar am nañ liggéey bu rëy mooy yàq derub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy ñëw buñ dikkee duñ fa jaar wala liñ leen di wax sax duñ ko gëm moo tax pexe mu ne jëfandikoo nañ bokk na ci ñi jiitu seen kàngame Quraysh yi délégation yi dañ leen daan dogale ci bitti Màkka di leen wax bu leen ko déglu waaye ñoo it fa leen yàlla nattoo mooy seeni wax amul benn coordination bu dox ci diggante bi day ñu dajeeku kuréel fële ñu ne leen wattu leen ko kooku bu ngeen demee ab jabar la ñu génn dajeeg ñeneen ñu ne kooku day benn poète la boo xam ne moom way rek lay def ñu génn dajeeg ñeneen ñu ne ab dof la waaw li ku ko wax nit yow loo looy wax da nga ne ah man de kooku xanaa ne faaw ma gis ko ginnaaw ñii dañ ne moom ab dof la ñii nee nañ poète la boo xam ne day way ñi nee ab jabar la yooyu mënta daje ab dof mënta mënta way way yoo xam ne way yu baax yu yu yéem kenn loolu mënta nekk loola indi na contradiction bu mag ci seen biir boo ko xoolee day tolloo jëfandikoo média pour yàq ab der léeg-léeg mu am am na jëmm ji fi doon yàq ab daram ci fonction bu ñu ko doon bëgg a jox euh, ay noonam ñenn ñi dañ ne ab terroriste la ñeneen ñi ci des ne jaaykatu drogue la maanaam ku ëppal ci diine la ñeneen ñi dañ ne ku teegal ci wàllu diine la ñeneen ñi ne day jaay day loolu ñu yor seen i xel xam nañ ne loolu mënta am nit ki mën naa mën naa nekk ci diine ba teegal ci ba jàpp ne ku juum sax tàbbi nga sa a wala doon nga yéefar ba noppi moom wëlbati nga jaay drogue ñeneen contra contradiction yi mel noonu loolu moo tax waa Quraysh ñi nga xam ne dañoo am xel naa arab yi jóge ci bitti dégg wax ju juyoo ju mënta ànd jooju loolu daf leen a ñu ñëw xool seet si ko moo tax borom bi innakum la fi xawlin muxtalif innakum la fi xawlin muxtalif yéen képp seeni wax bokku ñii lii lañ wax ñii lii lañ wax lii la te yooyu yëpp mënta ànd dajaloo ci kenn loola nag moo leen xëcc ñi ñëw di ko seet si benn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàñe na terrain bi ci wàllu communication ndax loolee ñu wax tax na ñëpp jóg bëgg xam ku mu doon ku ñëw ku nekk gis nga lu wuute ak liñ la waxoon ñaareel ba dal nañ siiw nag ndax lañ doon def propagande ñu doon def moo ko siiwal nag foofu am nañu doon ñëw te dégguñu ko sax foofu waaye biñ leen dogalee ne leen am na ko fa nekk koo xam ne boo ñëwee da nga fekk ne nangam ak nangam ak nangam noonu la mel moo tax borom bi ne ko wa rafana laka dikrak wa rafana laka dikrak yëkkati naa saw tur ba ñëpp dégg nañ ko foofu ku ñëw ku ne daal bëgg ngaa gis waajooju ba xam ku mu doon lañ la ca waxoon ba nga ñëwee gisoo ko loolu moo jiir yi woon ci àll bi yëpp ak délégation yi saa buñ ñëw bu ne benn ñoom ñëpp ñu ànd dugg ci lislaam wala kenn dugg wala ñaar dugg loola nag la Quraysh dem ba att na tuñ ko ca loola dañ forcé nag nekk kii daal fu sëy ba mu génn dëkk bi wenn yoon ñu noppalu ci moom ndax fii su fi nokkee nit ñi buñ mënuñoo bañ a ñëw màkka te suñ dikkee danañ dajeeg moom te suñ dajeeg moom danañ dugg ci lii muy woote kon euh, lu mel noonu ba léegi ci suñ jonni tey jii ngi am mooy bépp tuuma boo xam ne jàpp nañ ne buñ ko waxee ci yow mii nga xam ne da ngay góorgóorlu di tasaare lislaam danañ fexe ba loola yàq sab liggéey tuuma bu mel noonu mën nañ ko fabriquer mën nañ ko bind ci yow mën nañ ko wax ci yow waaye nag saafara sa mooy eh, li ñuy wax ne buñ la séddee ci aw gaal yi itam na sédd ba yem ci sédd waaye bu ci kenn fekk ngay nga di ca lekk bu ko nangu bokk na ci yooyu itam xalqu al adawat al taifiya wa tasjiuha bayna sufuf al muslimin lislaam dafa bari ay kuréel kuréel yi léeg-léeg ay juuyoo ci ay masala da ciy am masala yooyu mën na jëm ci pas-pas léeg-léeg mu jëm ci sulóob léeg-léeg mu jëm ci leneen léeg-léeg mu jëm ci yeneen loolu nag ki nga xam ne dafa jóg di xeex lislaam loolu dafa bëgg mu dund bëggul jullit yépp ànd loo nekk benn bolom day jéem a dox ngir ñooñu lañ gën a soree moo tax ñu ci wéetal day wax ci ña ca des bu wéetee ci ñële wax ci ñeneen di yebal ay kuréel ci àdduna bi sax di ngir di yàq euh, liir naa benn rapport boo xam benn benn tubaab moo xam naa kooku dafa dem ba mu yàgg mu mer mënatu la muñ lenn li wala mu doon ku jëfur sax nag fa parce que rapport bi bu doy waar la ci loo xam ne noonu lislaam dañ koy jëfandikoo ngir di jaxase julli gi tey maanaam loolu ñuy wax paste sikkim dañuy wax ne nit ka daa jóge fa la fekk ñaari silmaxa ñu nekk ci ab toolam di sàcc mboon di silmaxa ñoom ñaar dong ñu nekk fa mu ñëw fekk leen ca loola ñuy lekk ñuy lekk ci tool mu toog ba mu yàgg mu jël giilinu sawara bi laal ko kenn ki moroom mu ne moroom ji yàgg may lakk de mu ne ko déet man kay ni ma toog lëkkuma kenn mu toog nes tuuti mu jël ko laal ko keneen mu ne ko nee naa la lëkkuma nga di ma lëkk mu toog mu yàgg mu laalaat ko keneen ki kii def daal koy song ñuy xeex ñoom ñaar mu taxaw di seetaan léeg-léeg mu jël yar bu sax dóor ko kenn mu ne ko yow dóoruma la bu yar nga di ma dóorub yar mu dóor ko keneen mu wax noonu mu duma leen duma duma ci lu mel noonu loolu léeg-léeg day dal julli bi dañuy dikk fekk ñaari kurél yoo xam ne yàlla xam ne suñu leen bàyyi woon ñuy dund d'accord ak li nekk seen bi ci ak jooyoo ay siècle dund nañ ko mosuñoo am problème wala diir bu yàgg dund nañ ko mosuñoo am problème keneen lay dugg si ñëw ne yéen de su ngeen wëttuwut ñii li ñuy fexe ci seen kaw lañ jëm loolu dégg nañ ñu ngi koy wax ba convaincre leen sax dégg nañ ko indi ñuy wax naan gars yi nekk fii ci dëkk bi wootul danañ ñëw fii toj suñu xabru yi danañ ñu defal nangam danañ defal nangam loolu luñ leen dikk la ñu di ko wax waaye wóor na leen ñi ñu xam ñi bokk ci seen réew mii ci dund juddoo fi màgge fi xam li fi xew dëkk ci biir dëkk yi comme ni fi ñëpp dëkke di tabax te la ñuy tabax bëgguñu ku ko toj xam ne ñooñu duñ mës a jóg ñoom di toj xamuñu kenn waaye nag am na ñeneen ñu leen ko dikk ñoo xam ne loolu seen intérêt rapport bi waa ji lu mu ciy wax mooy togg boobu mooy wax sax fi lay waxee mooy am na yuy xew ci musiba yu mag yoo xam ne day xew ci benn kuréel ci biir monde islaamik bi su xewee rek am na ñu ñu ko war a tuumaal fi saasi su ko defee ñooña ñooy daal di loru ñii dañ leen di daal di tuumaal ci Égypte tudd na moom bindkat bi nee na am na ay église yoo xam ne dañ leen a taal ñu daal di jàpp ne frère musulman yi ñoo leen taal wala ay salafit ñoo leen taal waaye biñ gëstoo dëgg dëgg dëgg gis nañ ne ña ko taal ci boppam du ñii du ñii waaye ña ko taal xam nañ ne buñ ko defee ñii doog lañ koy ji Soudan mu tudd fa ay xabru yoo xam ne xabru diw xabru diw xabru diw yooyu dañ leen a toj ab xeex xaw na jaa am diggante kuréel sàngam ak kuréel sàngam ndax dañ leen toj rek ñeneen ñi ñoo ko toj mu ne su fekkoon ne ak dalu xel ak seenu nit ànd ak seen sago xeex yu mag ak deret yu tuuru mooy am foofa te fekk ña toj xabru ci boppam ñeneen la biir ci boppam mashahid yooyu nga xam ne eh, ay aalul bayteeg ñu mel noonu ñoo fa nekk dañuy jóg dem toj ko su ko defee ñeneen ña ko toj mooy sunnit yi parce dañoo contre chiite yi su ko defee xeex ba daal di taxaw seen diggante deret di tuuru te fekk ña ko toj ñeneen la ñoo xam ne du ñii du ñii dem na ba tudd ci yoo xam ne ay béréb yu ñu jege la léeg xam ne dañ naan lii groupe toj toj nañ statue yàq nañ xeré fekk ñooñee ci seen jëmmi bopp ña leen jiite dañ leen faa indi ngir ñu def loolu parce que suñ ko defee danañ yàq darub l'islam ja nit ñi danañ sori l'islam suñ ko defee ba seen mission jeex dañuy def mis kenn leen gis kenn lii doon xew Mali bëgg démb képp muy musiba mag moo xam ne bi mu àggee ña doon jiite yëf yi kenn gisatu leen di mu nekk tur yi ñu doon tudd nga xam ne ñoo doon woote lañ doon tudd ay ansaaru diine ak ay daawa jihaad wala xitaal tur yi kenn xamul mu doon ñooñu bi yëf yi jeexee dañ ne fes kenn gisatu leen mission lañ ko doon def mu jeexee dem nañ ci taal fa nag musiba mu continuer di dem nekk conflit boo xam ne diggante jullit yi lay dox ñi leen bëgg a xeex am fuñ mën a jaar ba xeex leen ñi bëgg a yàq seen i der mën ko yàq ba mel ne suñ réew yi yépp li fi waroon a dox sax dootu mën a dox nit ñi guddeeg bëccëg ci la bind ci la wax ñi naan ñi ngi fi ñi naan nekkuñu fi danañ agsi duñ agsi coono bu metti boobu ay fitna la yoo xam ne lu ci baree baree bari du ma wax ne lépp de waaye lu ci baree bari ay nit ñoo ñëw ji ko fa mu nekk ci diggante jullit yi ñu koy ji ñaate ko fekk kenn ci ñoom ko kon lu mat a bàyyi xel lu mat a wattaliku mu des euh, danañ jéem a gaaw tuuti ndax su une heure jotee insha allah ba une heure quart ñu mën a taxaw euh, taxawaay bi jullit bi war a am nag ci défi yi yépp ñu dégg la ko tàmbalee ci yi jóge ci boppam moom yi jóge ci société bi muy dund ak yi ko jóge ci bitti am na ay mbir yoo xam ne mooy li war jullit bi bi ci jëkk moo di iltisaam as sabr wa jullit bi faaw mu muñ faaw it mu sax ci principe am sax li nga xam ne mooy dëgg wërta jeng mukk ba bàyyi ko borom bi tabaraka wa taala dafa ko yonentam ne ko wattabi ma yuuxa ilayka wasbir xatta yaxkuma allah wa huwa xayrul xaakimiin nee na ko ak luñ mën a wax bu la kenn mën a génne ci topp li nga xam ne moom laa wàcce ci yow wa tabi maa yuuxa ilayka kon foofu la mbir mi nekk buñ la mën a tooñ ba tax yow nga jóg ne damay tooñ kenn ñu la yàqal ba nga ne damay yàq kenn buñ la saaga ba nga ne damay saaga ndax saaga du sa habitude yow jullit kon àndal ak sa xel mu dal neel tekk buñ la yàqaloo ñu la fekk ci lu jubut buñ la fekk nga di ko wax buñ la fekk nga di ko def àndal ak sa dal te muñ nag xatta yàlla mooy atte te dana atte léeg-léeg nag mu àtte fii ci àdduna la mbir yi leer borom bi tabaraka wa taala nee na wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun nee na muñal te bul jàq bul tiit bul jàq bul tiit pexe yi noon yi def nee na amul solo moo ko xaytul ankabut ñoo yam lëndu jargoñ nam ñàkke solo pexe yooyu lu mu rëy rëy moo ko gën a ñàkk solo ci kanam suñu borom tabaraka wa taala ci jullit bi jaar ci siraatul mustaqim te dëgër ci diineem te jub jub googu lu ci mën a bàyyi xel borom bi nee na wa atiu allaha wa rasulahu wala tanazahu fa tafshalu wa tadhaba rixukum wasbiru inna allaha maa sabirin nee na topp leen yàlla akub yonentam kon sabaat al xaq ñëw na lu mën a xew toppal yàlla akub yonentam waaye bu leen xëccoo bu leen juyoo bu leen naayoo fa tafshalu su ngeen ko defee da ngeen di échec da ngeen di yàqule seen kàttan day dem waaye mu teg ci ne muñ leen te xam ne yàlla ki muñ la àndal kon tomb boobu tomb bu am solo la as-sabr wa sabaat isbiru wa saabiru wa raabitu wattaqullaha laallakum turhamun ñaareel ba mooy taqwiyatu silati billah wa muraacaatu mardaatihi fi amrihi wa nahyihi wa qadrihi nit ki digganteem ak boroomam na fexe ba mu rafet ba mu sell li yàllay santaane lu mu ca mën na ko def li yàlla di tere na ko bàyyi na gëm dogal suñu boroom tabaraka wa taala ne yàlla lépp lu mu def fii ci kaw suuf lu gën la mën naa metti nag waaye lu gën la kon jullit bi faw mu defar digganteem ak borom ci ni ma ko waxe woon ci gannaaw jiital farataam yi teg ci naafilaam yi rafetal jëme ci jaamu yàlla yi di wax lu baax di ko def foo fekk luy bëgg a yàq nga defar ko lii mooy melokaanu jullit jullit bi na dem ba àgg ci martaba xam ne jëflante wut ak doomu aadama yi boroomam lay jëflante jaamu yàllaam ya muy def digganteem ak boroomam te kenn fekkewu ko na gën a rafet jaamu yàlla yi muy def doomu aadama yi di ko fekke noonu la ñuy jëflanteeg sunu borom tabaraka wa taala ki dem ba àgg foofu noppal na ci doomu aadama yi ña koy taggat ña koy xas la yemale kenn amul ci ñoom soxla yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala jàpp na la noonu ñëpp ñetteel ba muaalajatu amraadil qulub feebari xol yiñ tudd mu ni su ko bañ a faj nuñ koy faje mooy nit ki bu mu nekk ci société bi jàpp ne moom ku mat la bul defe ne ku mat nga kenn muccut ma moom mii muccut kee muccut keneen muccut seytaane ngi ci yoon di teg défi yi te ku gëstu sa bopp da gis ni am na ci loo defe wala am na ci loo yor nuñ koy faje bil quran bil quran mooy bu njëkk alquranul karim jàng ko settantal aayaam yi wattandiku lépp loo xam ne lu alquran di tere la jàng ko ngir tuyaaba ja jàng ko ngir jëfe ko jàng ko ngir soppi jikko yu baaxul yi waaye ñu faj feebari xol yi ci istixdaaru azamatillahi azza wa jal wal wuquufi bayna yadayhi jullit bi nay teewlu taxaw gim nar a taxaw ci kanam boroomam ëllëg ñu dekkal ko moom dong boroomam di ko xisaab ba mel ne moom rek la mas a bind taxawaay boobu nekk ci suñ kanam te bis bu nekk nu di ko gën a jege nag bis bu ne nu di ko gën a jege te kenn xamul kañ la wala fan la wala nan la loolu jullit bi koy teewlu feebari xolam dana mën a saafara waaye saabu buñ ko fàttee rek day feebar yi day gën a yokk wa bil saabita bokk na ci saafarawukaayu feebari xol yi mooy jaar-jaari ñu baax ña yonent yaag saalixoon yaag saxaaba yaag ñi nga xam ne dañoo jaaroon ci siraatul mustaqim booy jàng seeni jaar-jaar da nga ci jëlee yoo xam ne dafay dëgëral sa xol moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi doon ko nett li yaxe woon ci yonent ya ko jiitu lu tax li nu sabbita bihi fu'aadak ndax sa xol mën a dëgër ngir nga mën a dëgër kon xesas yooyu ci yinu mën a musal ci la bokk war raqaiq fawit bunt bi nga xam ne mooy yi tooyal xol nga xam ne bu ko nit ki jàngee dana xam moom fam toll ak la ko lañ ko rawe ni mu baree xesas yu mel noonu mu di ko bàyyi xel fu mu toll fu nekk yooyu danaa ci faral di joxe misaal boo xam ne raqaa'iq yi ñu ko bàyyi dañ ko war di jàll dañu war a dellu ci tasasi ñu baax ñu jëkk ña ñu baax ñu jëkk ña bokk na ci seeni melokaan mooy seen lépp daanañ bëgg mu feeñ ba mu def seen jaamu yàlla dañ ko daan nëbb luñ ci mën a nëbb rek dañ koy dëbb li nga xam ne seeni naafila ak seen yëfi bopp la yooyu dañ koy dëbb ku ci yàlla may martaba sax ba nga gëm ne yow mii àgg nga ci soo ñaanoon dara mu sa boobu doo bëgg ku ko xam kenn ku ne ci yéen defe naa ne dégg na qissatu al iskaafi muy uude bi xam ne ca jamono taabeexoon yi la doon dund al muhammad ibnul munkadir moo ñu koy euh, bi mi ngi ci xilyatul qissa bi mi ngi ci xilyatul awliya bu abu nuaym mi ngi ci itam sifatu safwa bu ibnu jawzi nee na dañoo toog menn at ci madina ñu li tax ma ne la xisas yu mel nii am na solo ay dars lañ ciy jëlee ne Madina bekkoor tawul te xam nga Madina dëkku bay la dañu bay tàndarma bay toog tawatul ñu ne nañ def salaatul istisqaa julli ñaan mu taw julli ñaan mu taw mooy julli mbaaw naa ñu génn julli nee na tawul ci ëllëg sa nee na tawul ci ëllëg sa tawul moom mi nettali al Muhammad ibn al Munkadir nee na loolu moom mosu ko fàttaliku ci taarixu Madina jullit yi amul bekkool génn julli te tawul nee na bii yoon def nañ ko ñetti yoon te tawul mais benn bés mu xëy si ci jàkka ji di julli si fajar lu jiitu nodd di jot nee na bi ma duggee ma gis nit ku ñuul ku toog ci gannaaw benn poto ci biir jàkka gi tàllal ay loxoom di ñaan nee na ma taxaw ci gannaawam di ko déglu mu naan yàlla yërëmal sa jaam yi yàlla sa jaam yi nga xam ne ak jura seen biir ñu ñàkk a ngi ci ay béykat a ngi ci wàcceel sa ndox mi nee na bi mu daataan wàccee loxo yi ma dégg asamaan si di yëngu ne bi ñu daataan taxawal julli rek taw bi tàmbali nee na ma daal koy làqu ba gisuma nee na ma wax ci saam xel ne kii de danaa fexe ba xam fu mu dëkk ma jéem koo xam mais ñu julli ba noppi ma bëgg koo topp ba xam ci gan kër la jëm nee na bi ma génnee ndox mu bari man ni ma ragale ndox mi moom mu xuus rek dem faalewut génne dàllam gàddu dàllam moom dugg ak ci sagaram dem nee na jotuma ko ne ci ëllëg sa ma fexe ba xam fu muy jullee mais bi mu jullee ba noppi mu génn ma topp ci moom ndànk di ko xool ba mu dugg ci kër nee ma ne waaw kay kon fii la dëkk bàyyil ba yoor yoor ma seet si ko nee na dem ba yoor yoor ma ñëw nuyoo ci kër gi dikk gis ko ndeke mooy wuude bi ci kër gi di defaral nit ñi seen i dàll ak seen i yëfa gi mel noonu nee ma ne salaamaaleykum nee na ma ne ah Abu Muhammad looy dox fekk xam na ma yow kay bu dee da ngaa defar si dàll wala nga soxla dara da nga maa war a yónnee woolu ma man ma ñëw defaral la waaye yow waroo ñëw di defar si dàll nee na ma ne ko loolu indiw nee na ma toog mu ne ma loola indi nee ma ne ko damaa gis démb ci fajar bi nga tàllalee sa loxo yi di ñaan bi ñu ko daataan wàcce rek asamaan si wàcc ma bëgg a xam yow yaay kan nee na mu mer mer moo xam ne di ma wax xatta anta xatta anta xatta ba yow sax ba yow sax ba yow sax nee ma ragal ne li ma ko wax fitna la ma ma daal di wàcc ko ndànk dem ne bi ma jekkee ba ngoon daal ma fàttaliku ma ne kii tooñ naa ko war na maa dem jéggalu ko nee na ma ñëw dikk ci kër gi bi ma ñëwee ne leen waaw ana uude bi fi nekkoon nee na ñu ne waaw xanaa ab xuloo daa xew sa digganteeg moom wala dara yow de da nga fay rek mu boobu ay bagage am dem ñi yónnee ci Madina wër wër kenn xamut fu mu jaar dem yoon lu ko naqari mooy martaba bi ko yàlla may ñaan na mu nangu kii ñëw ne ko gis naa la nga ñaan mu nangu loolu ko naqari ba tax mu gàddaay génn ma dina dem yoon waaw xoola ñu toll fii siñ bi ak noonu fan lan toll nga xam ne soo defoon dara lu tuuti da nga bëgg nit ñi yëpp ne yow yaa ko jëm ci adduna ak lu jëm ci mbaax ak diine safaan bi moo xew tey li nga yor ci xaalis lu da nga koy nëbb bu feeñoon sax nga ne nii dañ ma koo lebal wala diwa ko moom wala naan bu dee jaamu yàlla gën nga bëgg ne lii moom mi ngi nii bu dee aji nga nga ne nangam yoon de aji naa ko bu dee nangam nga ne sama xarum tabaskeen yi ci téléphone ci télé bi xool leen ko ñi ne xar muy jar cinq cent mille day ngi nii ñi ne xar muy jar un million ñi di ñu génne ko doomu aadama yi gis ko waaw koo koy defal borom bi tabaraka wa taala yii nga xam ne moo nekk ci xol yi li fekk saafara wuñ ko ci suñ bopp ba mu set wecc lu bari ci suñu mbir day gàllankoor as salafu saalih lii moo doon seeni melokaan sekkareel say jaamu yàlla say def lu baax ci diggante jaamu yàlla sa kem kàttan li ci des nag lu aju ci wàllu adduna bi man noonu nga dund ko comme ni ko doomu aadama yi dundee parce que kenn nga ci ñoom moo tax mbaax yëmu nekkul fenn nekkul ci askan wi nekkul ci métier ma nekkul ci nangam nekkul ci nangam kon ci sellal nga rek ca la dellu bokk ci saafara yooyee maanaam ci taxawaay yi jullit bi war a taxaw mooy ñeenteel bi muxaarabatul jahli bi nashri al ilmi al qaimi ala al kitaabi wa sunna faw ñu xeex réer boobu nga xam ne ci défi yi la bokk xeex ko ci tasaare xam-xamu alquran ak sunna te yaat ci doomu aadama yi daara alquran yi bu ñu yem ci njàngum alquran ak mokkal ko rek dem nañ jàng alquran waaye nañ yar gone yi ci alquran ak i jikkoom yar leen ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daara yi nga xam ne mooy école publique yi naa danaa ñu wax ne njàngoom diine gi ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye ndaw yi nañ leen yar yar boo xam ne yaru diine la nañ def ci ñoom pas pasu fuglu seen borom ak bàyyi xel ci moom mooy tax ëllëg doomu aadama yéen bëgg mu doon sénégalais bu bees day doon koo xam ne buñ ko contrôlé wutit mu contrôlé boppam na lu nekk ci biiram loo xam ne su wéetoon fi béréb mën a jalgatee du jalgate lu tax ndax loolu mooy contrôlé ku mel noonu lañ soxla tey ci njàngum diine moo ko mën a def ci doomu aadama juróomeel bi muxaarabatul bidaai wal xuraafaat bi tarbiyati shabaabi ala al islaami saxiix al mustafa min alchawaib faw li ñu tudde bidaa ak li ñu tudde ay xuraafaat muy njaxas yeeg njabar yeeg xar nga foofu yi ci société bi nga xam ne yépp yuy delloo doomu aadama gannaaw la di delloo ab jullit gannaaw te yépp ñu koy askane lislaam ak suufe geeg dese geeg ñàkk jàng geeg yu mel noonu faaw ñu bëreeg moom mu génn ci suñ société bi ngir nu mën a départ jëm kanam juróom-benneel bi al ihtimaamu bi jaanibil qudwa ittewoo royteef royteef wa tarsiix daaim al iqtida bi ahli al ilmi wal amal baidan an al xuluwi wal jafa faw société bi am ay doomu aadama yoo xam ne ci biir liggéeyub lislaam ay royukaay la ñuy doon nit ñi mënuñoo nangi faaw kenn ku nekk jaar sa yoon bopp faw ñu boole liggéey yi faw am ay nit ñu baax ñu jub ñoo xam ne li ñuy jàng ci téere yi dañuy gis ñu koy dund loolu mooy tax ñu xam ne li ñuy jàng du ay léeba ki lupp waaye lu doomu aadama mën a dund ba tey jii la li ñu tudde ak kudwa muy royukaay mooy yarukaay bi gën a gaaw ci yar doomu aadama ginnaaw da gis muy def di gis muy wax nga takkoog moom ngay def lu mel ne la muy def di wax lu mel ne la muy wax jeex na dañuy daal di baax su fekkee ku baax la safaan ba it nag su amee mooy am ku dëng nga topp ko gis ko muy def ngay def muy wax ngay wax muy daal di dëng comme moom te loolu mooy li xew ci suñu ndaw ñi tey ndax biñ demee ba xudwa ci biir lislaam boo xam ne dafa teew nit ñi di ko gis di dund ak moom guddi ak bëccëg di jullee ak moom di bokk ak moom di lekk di def yëpp mën a roy ci moom su manqué xale yi fu ñuy jële royukaay mooy ci li ñuy seetaan média bi li ñuy liir li ñuy déglu foofa rek lañ ko mën a jële moo tax da gis xale boo xam ne boo jëloon benn équipe bu football ci réew ma gën a sori di ko ko laaj mën na laa limal seeni tur kenn ku ci ne sax mën na laa wax fa muy taxaw ci biir terrain boo ko laajoon saxaaba yonente bi wala kilifa yu baax yi ci biir réew mi du la ci mën a wax ak ñett wala boo ko ne kuy diw fu mu dëkk wala ban dëkk la dëkk ci dëkk yi dana am la rek dégg naa ñu koy wax wala yu mel ne waaye xamul ci moom dara kon nag royukaay doon loo xam ne mënta ñàkk ci askan su amatoon askan wi day réer maanaam keneen la jëm juróom-ñaareel ba moo di nasru mabadi al wasatiya bayna al jiil al saaid wa muaalajati amraad al xuluwi fi lfikri wa tawajjuh faw li ñuy tudd juste milieu muy ak ak yem bañ a ëpp ba a yées faaw ñu tasaare ko ci biir askan bi jàngal ko ndaw ñi yar leen ba ñu xam ne diine du mooy teengal teengalu kese loolu du diine waaye diine yëpp la ak wax ak jikko ak pas-pas dañuy def nit ñi gis waaye am na ñoo xam ne mën nañoo caractériser fañ nekk defuñu waxuñu amaluñ kenn njariñ lu dul rek wax ju teey ju dégg daay yoo xam ne su waxee ba daaneel da ngay jàpp ne kii moom jël jaasi rek moo ci war a teg xeexal doomu aadama yi ngir delloosi lu mel noonu faw nag ñu xeex ko ci askan wi delloosiwaat ñi ëpp ba ñu yem ñu suufe ba àggu ñu nga yëkkati leen ñoom itam ñu yéeg ngir ñu mën a daje ci digg doomu boobu nga xam ne moom la lislaam di woote juróom-ñetteel ba iltisaamu lhudui wa dabti nafsi wa adamu listijabati li ahli listifzaz fexe ba nit ñi ñu régler seen bopp ba ku ñëw bëgg laa dugal ci loo xamul duñ ci nangoo dugg li ñëw te leerul ci sa bopp xamoo lu mu doon nekkoo ci jamono yi lu ñëw nga dugg ci loo xamul lu mu doon bu ci dugg loo xamul bul ca wax loo xamul bul ca def doonal ci dàqa wattaniku ci doomu aadama yi soo gisee loo xamul di nattable wool koo jàpp ne lii xam na ko nga def waaw ndax nangam ak nangam xam nga ca dara lu mu ca xam wax loolu boo ko dee def doo gaaw a jóom te ki ñëw di la tegal ay fiir ngir nga bëgg nga tàbbi ci ngir nga def jëf yoo xam ne danañ ci mën a yàq sa der wala ñu yàq ci derub lislaam téyal sa bopp ba loolu bul ko def même bu lor dalee sa kaw àndal ak sa sal àndal ak dal xam ne lenn lu nekk dafa am luñ koy saafaraa ci ak dal waaye téel téel wax ju bari xaste saaga dugg génn loolu loolu lislaam tey itam fajul dara juróom-ñeenteel ba assaayu ila jamci lkalima wa lammi chaml walqadaai ala asbaabi alixtilaafi waltafarruq jaar na ci jullit bu nekk muy dox saa bu xëyee ci luy boole kàddu jullit yi lu leen di bennale lu leen di jegeele lu leen di delloo siwaat bañ jël siwaat jaar ci siraatul mustaqim lu gën ci luy boole jullit yi bal li mën a boole jullit bi moom dong mooy alxuraan ak sunna kese yi ci nit ñi dolli nga xam ne kenn ku ne yaa ko ci dollil sa bopp wala sa kër baay dollil ko ci wala sa kuréel dollil ko ci yooya yor ko ci sa kër baay wala nga yor ko ci sa kuréel bu dee sa diggante jullit yi li la boole ñoom mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi loolu mooy alxuraan ak sunna loolu dong nag mën a boole jullit waaye li feet daraa ngi ci loo xam ne dama naan lii man sama kër bàyyi ko moom bu ma ñëwee sëñ alfahim ne ma ah ma ne daa am lu jóge sama kër bàyyi su ko defee sëñ bay ne ma ah loolu day sama kër maam daraa nga ko moom itam kële ne ko man itam de nangam kenn ku nekk yor sa mbuus andi ba ko tasaare ci géew su ko defee lu muy jur mooy kenn ku ne dana am ñu la topp ñooñu mën nañ noo topp ne ah waaw lii de amul benn problème parce que alpha mbay say géeg jóg sàngam ak ñoom ñëpp ay xarit lañu kon nun ñëpp daanaka ñu nuy topp benn lañu waaye yéen ci seen bopp yéen yi dem ba mu yàgg ngeen jur fanatisme boo xam ne day dem ba su ma dajeeg alpha du ko nuyu ndax damay jàpp ne yóbbu na mbooloo kon faaw di xëy di dox ci lu jegeele jullit yi ngir delloo leen ci alquran ak sunna ndax bennoo googu mën a am kooku ab liggéey bu bi fukkeel bi mooy at tansiqu bayna ahli daawati wal islah fi l baramij al ilmiyati wal amaliya jéem a coordonné activité yi nga xam ne ñiy liggéeyal wooteeb lislaam ñi ngi koy def moo xam ci seenum jàngale la teg ay programme yi ñu bokk di jàngale moo xam ci seen lu jëm ci wàllu xam-xam bu ñuy tasaare moo xam dafa jëm ci wàllu ab liggéey boo xam ne dañ koy ànd di ko liggéey fexe ba coordonné ba taxawal loo xam ne day liggéey ci anamu association di liggéey ci anam boo xam ne bu organisé wala bu leer la boo xam ne lépp dafa feeñ dara luy lëndam wala dañuy xomtoo nekku ci loolu jàpp naa ne sunum réew soxla na ko fi nu toll fukkeel ba ak benn mooy al ihtimaamu bi fiqhi al maqasid wa fiqhi al maalaat wa fiqhi al waajib fi al waaqi am na xeeti fiq lii su ma koy wax borom xam-xam yi yëngu ci teere bi ñoo tax di wax sharia dafa am ay jubluwaay yoo xam ne moo ko tax a jóg yu muy jàngale di ci yar nit ñi maqasidu sharia am bunt bu ñu tuddee fiqhul maalaat yii ku ko xamut mën ngaa def njaaxum bu mag ci diine te fekk defoon nga ne da ngay defar mooy lislaam ay atteem bu muy def bu ne am na lu tax atte boobu jóg su fekkee xamoo ko mën ngaa jàpp ne lii moom jëf ji kese rek moo ci am importance su ko defee doo xool ndax lii su ma ko defee dana jur li taxoon lii jógam déet wala day jur safaan bi su fekkee day jur safaan bi day loolu war a too koo def même digle lu baax ak tere lu bon nga xam ci ponk yu mag yi la bokk su la wóoree ne fii nekk boo fi diglee lu baax wala nga ko lu bon kooku mën naa jur fitna ju yées la ñooña doon dund su boobaa digle lu baax ak tere lu bon day daal di xaraam foofa kon fiqhul maqasid ak al maalaat nga xam ne lii su ma ko defee lan moo ci war a tegu lii su ma ko defee lu muy jur buntu fiq la boo xam ne borom xam-xam yi yëngu ci wàllu diine war nañ ko xàmmee lu ko moy moo xam ci seen fatwa la moo xam ci seen njàngale moo xam ci seen yëngu ci biir lislaam mën nañoo indi fitna mën nañoo yàq loo xam ne si fekk dañoo bëggoon a defar far yàq yàq bu yées la fa nekkoon li ñu dund ci monde islamique bi tey nga xam ne lu bari ci ay yàq mi ngi am ba foo ci sax te doon ab jullit ñu jàpp ne yow moom ku dëng nga war a doon kuy taal nga war a doon kuy yàq na ay ko def maanaam ay doomu aadama ñoo jóg jëf jëf yoo xam ne jombul su fekkee wér na ay jullit ñoo ko def wala ay jullit a nga ca biir amaana jomb ne dañoo defoon ne dañuy defar mais lañ defoon ne dañuy defar lañ yàq ko yées nag tey kon lu mel noonu dafa war a doon fekk ba tasaaroo ci biir askan wi ba jéego booy seqi nga ne waaw jéego bi su ma ko seqee li ci juddoo waaye su fekkee li ci juddoo moo gën la fa nekkoon alhamdulilah boobu jéego mënees na koo seqee su fekkee ñoo yam sax dañ lay wax taxawal maanaam dindi nga munkar dindi nga lu bon ba noppi bàyyiwaat fa lu bon lu toll ne la fa nekkoon dañ lay wax ne bàyyi fa la fa nekkoon bul lu dindi ndax amaana munkar boobee bu màggat la lee mu deel boppam waaye di nga indi bu bees la nag day door a judd boobu day màggat ba kon loolu bunt la mu mat a bàyyi xel fukkeel ba ak ñaar te moo ci mujj moo di al adlu fi l xukmi ala ahli l milali wa ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir diine te jaaruñu ci yoon wi nga jaar wala ñu nekk ci biti diine sax kuy àtte ku ne kuy wax ci nit wala nga koy wax ci mbooloo dafa war a ànd ak maandu maandu bi mooy li nga wax doon loo xam ba noppi fi nga koy waxee njariñ lay jur te it ñu xam ne kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci biir lislaam te amaana xëy na ak réer nekk ci seen biir ñàkk xam yu mel noonu ñoom ñëpp yemuñu de am na ci ñoo xam ne lu baax dong nga leen tax a jóg moom lañ bëgg te fu ñu ko gisee nag jël ko amuñu ci lu ñuy ragal même ñi nekk ci bitti diine ji ñëpp yëmul lay suu sawaa an ni nu ko alxuraan waxe am na ci ñoo xam ne si dëgg ñor na leen fu ñu gisee dëgg dañ koy jël fu ñu gisee ñoo xam ne ñu ngi leen di tooñ dañuy wax ne ñu ngi leen di tooñ doonte bokku ñoom ñoom duy ne kon nag globalisé atte ñépp ne ku nekkul fii baaxut déedéet loolu moom du doxinu ahlu sunna wal jamaa faaw ñu bàyyi xel ñi nga xam ne bokkuñu yow xalaat ñi nga xam ne bokkuñu yow diine xam ne am na ci seen biir ñoo xam ne dëgg leen tax a jóg moom la ñuy seet moom itam lañ bëgg te fañ ko gisee fu nekk fas nañ ko yéenee jël kooku nga jëflante ñoom jëflante bu jaaru te lool na nga koy mën a defee mooy nga yor melokaan woo xam ne jagleeloo leen ko ñoom de waaye noona nga mel yow ndax loolu la lislaam wax mooy wa aqsitu fa inna allaha yuhibbul muqsitin maandu leen ndax borom bi tabaraka wa taala dafa bëgg ku maandu defe na daal tomb yooyu mooy li nga xam ne moo jàpp ni ci jataay bi di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te jéggal ñu lépp loo xam ne lu ci rot la ci ay rëcc-rëcc eh, lépp lu ci nekk ci njëriñ ak ay tuyaa bu mu boolee nu ko noonu ñëpp di rafetlu déglu bi ak teewaay bi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain jazakumullahu xeyran mu ngi ñaanal mbokk mi yàlla fayal lu ko yiw mel na ni waxtaan yi ak nekkee am na ci lu bari bari ci am wàllu man parce que mu ngi daan faral di wax ak taxadiyaat ñu dégg yi tey ñëpp ñu ngi jëm si alxadiya ak xaalidiya ñu ngi jógee ci biir ndekete li gën a am solo ñu wax ko gën a bàyyi xel mooy alxadiya ak jaahiliya ñu ngi jógee ci suñu biir loolu nag ñu doon waxtaan yi ba mu jeex li na teewal suñuy xalaat waxu waxtaan boobu nga waxe ana la axsha ala al islam min aadaai innama axsha ala al islam min adriyaati ñuy wóor lislaam te dooloo ko indiloo ko moo gën a ràndu kii xeex lislaam ay waaye ñu ne ñëwaat itam ci danax ñu ba naa daan wax en tant que kuy liggéey tool lislaam mooy def na naan aslih nafsaka wadru gayraka wastain billah la war a njëkk ci ñun mooy defar suñu bopp saafara suñu bopp seet suñu bopp suñ ca paree wala ñu soog koo boole ak wadru gayraka jéem a seet keneen naka la ñuy jëfandikoo moom ak fan lañ koy jaar nga delloo si boobu nag waaye yooyu yëpp nag mën na ko waxtaan bi la ñu dimbali ko yàlla dellu ci yàlla ngir yi ñu bëgg yàlla mën ñu koo defal mel na ni daal su ma doon jéem a tënk waxtaan yi ci ñaari waxi ñooñu laa koy tënki ci waxtaan yi ak xajaat ak xaaliya muy fexe yi ñuy samp yi ñuy ci julli ñu yu wér la waaye nañ gën a jiitoo suñu bopp ak li ñuy jóge suñu biir fexe ko ba mu nekk su boobaa yàlla jëlal ñu li nekk ci loolu daal ñu bàyyi ko bu baax a baax di ñaanal sall ci waxtaan yi ñu amee solo di ko ñaan aussi ci ni ñu tënkalee ci tàmbali ba mu xasee woon yooyu ak xawaare yi xam ne ay laytaay la ñu ñëpp moo ko bàyyi xel yal nañu yàlla boole sama amiin bu defee macha allah loolu moo doon taw bu njëkk mais ñaareelu taw bu waxtaan bi léegi ñuy jublu ci ñaareelu maanaam taw bu teg woon te moom mooy jublu ci laaj bi laaj yi xam ngeen li ñu dese ci waxtu bariwul te neewoon nañu bëgg nañu jeexal lu lépp ñuy dem ci julli ci soir moo tax du ñuy fexe seen laaj yëpp la ñu mën a tontu waaye dinañu tànn ci biir laaj yi nga xam ni surtout am na relation ak saa incha allah ñu yomb si ñoom ñoo ngi déglu képp koo xam ni xëy na am nga loo bi noonu te déglu ci tool bi bu feeñ donc ñoo tànn ñi nga xam ne wax bi xaj na ci ak yi nga xam ne gën naa fi waxtaan bi ak yi nga xam ne itam jàpp nañu ni gën a tënku jëlaale bëgg-bëgg ñeen ñi ñi ñi ñëpp defee ko ci loolu la ñuy dugg yokk saa mu toll suñu paree incha allah ñu ngi sàkku ci ki ñu wax ci suñu kilifa yi ak imaam yi ñu Oustaz Ibrahima Ba ginnaaw Oustaz Tongo Laye moom la ñu woo ñu wax ci suñu euh, njiit yi ak jigéen yi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw mbokk mi jox na ma ci machine bi ma tiim tiim ni laaj yoo xam ne yoo xaw a takku la comme ni mu ko waxee yi nga xam ne ñoo ci gën a dëppoo ak li ñu doon waxtaane danañ ko jéem a euh, ndax mu dëppoo ak waxtu bi ci ni ñu ko bëggee laaj bi njëkk bi daf ne nan la jaam bi di xamee ne boroomam bëgg na ko ak lan mooy maana xadis bi wax ne kuntu samaahu alladi yasmau bihi wa basaruhu alladi yubsiru bihi ba xadis ba jeex maanaam jaam bi nan lay xame ne yàlla bëgg na ko foofu bunt la boo xam ne dafa bokk ci tarxiisukaay yi itti ji wërta nekk foofu itti ji wërta nekk ci jaam bi ne waaw man su ma yàlla bëggee nu muy xamee ne bëgg na ma waaye waaye itti ji fi mu nekk mooy waaw lan mooy loo xam ne su ma ko defee yàlla bëgg ma lan mooy loo xam ne su ma ko defee yàlla digee na ne ku ko def mu bëgg la qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah borom bi tabaraka wa taala yonent bi yàlla moo ko wax ne ko waxal nit ñi ne leen su ngeen ma toppee yàlla dañ leen bëgg kon itti ju mag ji mooy topp digalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi tere ndax aw yoon la wu jëm fan ci ne yàlla bëgg da lay bëgg wasbiru inna allaha maa sabirin inna allaha yuhibu almuqsitin melokaan yi nga xam ne dafa nekk ci alquran yàlla ne bëgg na ko ku ko def bëgg na la fexeel ba xam melokaan yooyu nga jëfandikoo ko soo ko jëfandikoo ba noppi nag bul yëkkati sa loxo mukk ne man ci ñi yàlla bëgg parce que ko tartiisu kaay bi rafetal njort waaye nga jàq itam rafetal njort waaye nga jàq lu tax mooy nga rafet njort mooy yaa ngi góorgóorlu ci jëfe loo xam ne yàlla dige woon na ne ku ko def mu bëgg la waaye njàqare lu ko war a indi mooy jamono yu nekk tarxiis mën naa am ba keroon nit ki di dugg ci bàmmeelam tarxiis weesu moo tax al imaam ahmad ibn hanbal dañ koo laaj ne waaw kañ nga sam xel di dal maanaam nga wóolu ne yow mi mucc nga mu ne sama benn tànkum ndeyjoor bi bu duggoon àjjana sama xel du dal lu dul tànku càmmoñ bi da ko fekk si kon jullit bi dafa am ñaari laaf yoo xam ne moom lay naawe jëm ci borom mooy laafum alxawf ak laafum alrajaa da ngay boole ragal ak am yaakaar yaar yooyu soo àndee rek nga dem ragal gi wërta not ba amatoo yaakaar parce que kon da ngay daal di naagu ci yërmande yàlla te yàlla nee ku texee di rek mooy naagu ci yërmandeem waaye su yaakaar ji notee itam mën ngaa dem ba jàpp ne lépp baax na kon lu ma neex def saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wasallam meluñu woon noonu même ñeen ca ne woon yéen ci waa ajjana ngeen bokk ñooñu ci ñi dàqoon a yàlla ci lañ bokk defe naa lu bari ci nit ñi tey bu leen yonente bi ne yow de ajjana kon doo tuur àdduna tukki la ndax gis nañ fi ay nit ñoo xam lu leen neex def ci kaw yaakaar yoo xam ne dafa nañ ne bokk nañ ci waa àjjana ba noppi te yaakaar ne ci waa àjjana nga bokk kooku daa war a yokk ak laxasaay ndax nga def lu nuroog la waa àjjana di def saxaaba yi doon déggee eh, xadis bi nag bi wax ne kuntu samaahu alladi yusmiu yasnau bihi wa basarahu alladi yubsiru bihi ba xadis ba jeex yonente bi borom bi tabaraka wa taala dafa wax ci xadis qudsi boobu ne jaam bi day jaamoowuma lu gën li ma farataal ci moom waaye nag bu defee farataal yooyu ba noppi jaam bi day mën naa continuer di def ay naafilaal di ko def di ko def ba ma bëgg ko te su ma ko bëggee maay doon bët ba muy gisee maay doon nopp ba muy déggee maay doon tànk ba muy doxee luy loolu mooy daa wane màndarga ki mu bëgg ni mu demee mooy suy xool ci bëtam bi fa yàlla bëgg rek lay xool waaye lu yàlla bëggul du ko xool su bëtam ne woon tarfet xool loo xam ne lu xaraam la day gaaw dafa mbës bët kooku màndargam ni kii yàlla bëgg na ko kon ci doon laaj ni muy xam ne yàlla bëgg na kon boobu ci la nopp bi du ca mës a déglu loo xam ne lu yàlla xaraamal la du musique du wëy du caaxaan lépp loo xam ne toog na di ko déglu mu doon lu baaxul ah wa ida marru bi laxwi aradu suñ ko rombee dañ koy du muy won ko gannaaw gaaw jàll fa muy dox jëm seqib jéego jëm fi bérëb boo ko seetloo ci lu baax la jëm moom daal bu waaxoo ca jàkka ja la jëm bu waaxoo ci jàngukaay bi wala jàngalewukaay bi la jëm bu waaxoo ci seeti mbokk la jëm bu waaxoo ca dem jàngi la jëm bu waaxoo ci dox diggante jullit yi defaree seen diggante la jëm loolu rek moo koy tax seq bi jéego mooy warit lahu tànkam bi nga xam ne ci lay doxe su boobaa yàlla lay doon kon daal ab gisam ak bëtam ak tànkam ak xalaatam ak lépp lu muy def lu nekk na jàpp ne kooka nañ koy xame mooy boroomam tabaraka wa taala moo moom léppam jaamukatu yàlla la bu ne ci kaw suuf boo xam ne fu mu seq jéego fu nekk ci boroomam lay jëm loolu mooy maanaam xadis boobu bi fan la war a a jaar ba tënku ci loolu moom mooy li jaaru ci jullit yépp ndax alquran mooy téere bi yàlla wàcce yebal ab yonent mu ñëw leeral ko ci ay waxam ak i jëfam ak ci ay jikkoom jullit bi war a mel noonu jikko yonente bi moo doon alquran comme ni ko suñu yaay Aïcha waxe kaana xulquwul quran kon jullit bi noonu la war a jéem a mel fan mooy yoon wi mu war a jaar nag ba mel noonu ba ci jiitu mooy jàng ko alquran ak sunna des ko jàng door ko mën a jëfe ñaareel ba mooy yaru ci yaru ci bu ñu nee yaru ci mooy li ngay éducation ci boppam bokkul xam-xam li ngay jàng di ko xam ci ay masala tey kenn xamul lu mu toll yu bari la waaye ndax jël nga ko benn par benn di ko jéem a pratiquer ba sa yaram ba say cër di ko tànn jàng nga ne naafi la guddi daal lu baax la waaye nattoo nañ la yow soo xasee ji liggéey ba tëdd daal bala ngaa yow rek dañu noddu fajar bala ngaa yow rek ñu noddu fajar loolu ab nattu la am na Xasan eh, ibnu Sabaax dafa jënd benn jaam bu jigéen yóbbu ko këram jaam bi ñu tëdd ba nodd gu jëkk di bëgg a jot jaam bi jóg fëgg nit ñi di leen yee mu ne ko ndax dañoo nodd fajar sang bi ne ko dañoo nodd fajar mu ne ko déedéet waaye lii mooy waxtu jógub nit ñu baax ni mu ne ko ah noonu de wax dëgg jóg des na mu daal mu dem moom ci boppam di julli ay julleem ñu nodd nodd bu jëkk mu jógaat bëggaat mu ne ko waaw lii lan la dafa jot mu ne déedéet waaye nag nodd nañ nodd bu jëkk de njëgguma de ña ngay ña ngay takk seeni saako di dem de maanaam ñu baax ni ña ngay tàmbalee dem ñu jekki bañ nodd noddu fajar gi nag war a julli ji ñu door a jóg ñoom di jàpp ak a waaj nag ak julli seen ñaari rakka war a julli ji suba biñ xëyee mu ne leen lii da leen a dal tey wala nii rek ngeen di def ñu ne ko ah noonu de nii la def mu daal di awaat yoonam a dikk ci xasan ibnu sabaax ne ko yow kat bi'tani li qawmin suu wala li qawmi suu'in yow da nga maa jaay ci nit ñoo xam ne ñu bon lañu sooy boo nga delloo ma wala soo may jaay nga dellu nga jaay ma nit ñu baax mu ne ko luñ def mu ne ko ñooñu dañuy nodd fajar képp ñu door a yow kon baax kon ah yëpp yi kon mbir mi tënku ci mënuñoo wax ne mën ngaa xëy benn bis yow mel noonu waaye nag mën ngaa yar sa bopp ndànk-ndànk nattoo nañ la daal soo tëddee doo doo jógaat kon góor-góorlu nga def sa naafile yi ngay def yépp bala ngaa tëdd wala nga góor-góorlu ba lu jiitu noddu fajar nga jiitoo ko trente minutes wala vingt minutes nga julli ba ñeenti rakka jàng fa tuuti alxuraan ñu noddu fajar nga dem julli ci soo ko defee da ngay ci loolu ba da nga mujj man bala ñoo noddu noddu bu jëkk nga julli li nga parce que bakkan bi liñ ko tàmmal rek loolu lay tàmm waaye bu dee da nga koo tàmmal nag nelaw rek bañ ne asalaatu xëy na noom nga ne bëri su ko defee loola lay tàmm moom itam kon moo tax ma ne jàng alquran ak sunna ak tarbiya sa bopp ci alquran ak sunna bokkul faaw masala yi nga di ko jël benn par benn di ci yar sa bopp faw groupe yi ak xale ndaw ñi yar yi ñu leen di yar ñu leen a yar ci loolu maanaam jéem a tàggatu ci xëy ba ngoon tuddoo kenn ci luy doo jiw ndax loolu essayé woon nga ko man daal bisu tey bii ku mën a ñëw ci man di waxtaan itam ak koo fi mën a tudd du ma la tontu jéem a yar bopp ci loolu bu ëllëgee nga ne danaa fas yéene ku ma bëgg a tuxalal waxi jëw beneen étape la ku ma bëgg ko xalal waxi nit danaa la leet kooku kat jëw la beneen étape yooyu ci la nit ki dem di ci yar boppam di ci yar boppam ba mujj mu doon nag kuy dund alxuraan ak sunna kon njàng bi mën naa gaaw lool ndax da ngay toog benn place ñu jàngal la fi yu bari waaye ne bi benn par benn la ndànk-ndànk de moo tax ñu daan takkoog boroomu xam-xam li ñu daan tudde mu laasama borom xam-xam boo xam ne yëfi alquran ak sunna mu di la xool di la contrôlé boo jëmee mu ne déet du noonu defal nii defal nii ñu di ko def ndànk-ndànk ba keroog ngay doon koo xam ne dog nga yoon bi yàlla na ko yàlla jàppandal ci suñu cër <coughs> bi mu ne nan la ñuy def ba mucc ci fitna jigéen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi mu fiy jógee bàyyiwul ci askan bi fitna ju gën a rëy fitna jigéen woykat ba nee na inna salaamata min hindin wa jaaratiha an laa taxulla bi waadin qurba waadiha nee na mucc ci jigéen mooy bul jaxasoo moom loolu mooy wax yu bari yoo xam ne dañ koo yombal tey moo tax mucc jafe waaye nag yoon yi mucc yi moom mi ngi fi ba tey lépp loo xam ne xeeti caaxaan la xeeti pola xeeti kaf yu ëpp léeg-léeg muy am ci diggante ay góor ak ci jigéen lañ kaf yooyu day ak i alaakaat yoo xam ne yu ëpp la ñu naan kii xaritam la day dem di ko seeteeg ñoo bokk daaw bi bokk naan yooyu yëpp bunti seytaane la yoo xam ne la ciy juddoo kenn xamul lu mu doon kon la boo xam ne liñ la mën a wax des dana génn jigéen dana wax ñuy dégg waaye lenn lu ci nekk nag dafa am yoonam boo xam ne noonu la ko lislaam santaane na sol col mi mu war sol buy wax na wax wax joo xam ne ñu fullawula wa qul na qawlan maarufan la borom bi wax wala yaxdaxna bil qawli fa yatmaa alladi fi qalbihi marad waaye nekk jigéen yoo xam ne ab jàmbar la ci yow ngeen di weccante ay sms ay téléphone ay waxante wax yoo xam ne kaf kii nag yow sa sant wi nangam ca yooyu li tàmbalee bu ji jéggi ko nag ba àgg ci yeneen kon fiiru seytaane la waaye lu bari nag nit ñi ñoo ci dugal seen bopp faaw ñu jéem a wattandiku bunt boobu ndax kat ci yàq la bokk de ndax am na ak ñaan guy musal nit ki ci ki ñaan ah ñaan gi da xanaa yàlla mu musal la ci ñaan ndax ñaan suñu borom tabaraka wa mooy la nga bëgg ñaan ko ne ko musal ma ci waaye nag ñaan boo xam ne dañ ko mu nekk ci alxuraan wala sunna ñu ne lii boo ko waxee dootoo iñaan déedéet loolu moom moom kon faawu daal ngay tàllal say loxo di ñaan sa borom tabaraka wa taala mu musal na ci loolu waaye nag nga jéem cee jéem a def ay effort yawit nag ngir mucc ki nga gis mu am dara nga ñaanal ko yàlla mu dolli ko kii de ni ma ko gisee lii ko yàlla jox yàlla na ko yàlla dolli su fekkee ne lu gën ci moom la yàlla na ko ko yàlla tàggatal mu nekk ci topp yàlla su fekkee ne lu mu yor la yàlla na ko ci yàlla musal ci cat ci mbubbam mi ma gis mu sol ko tey de yàlla na ko yàlla fegal cat macha allah yu mel noonu boo ko waxee nit ki di yéene ko lu baax ak ñaanal ko lu baax sab xol du du tàng jëm ci moom loolu day fay day fay bunt boobu sa waraw tàngooru xol woowu ngay xool ca la yàlla defal keneen nga di ko ñaanal yàlla mu barkeelal ko ko loola day tax sa waraw tàngooru xol woowu fay su fekkee ma nga ko woon kon yéene nit ñi jàmm bokk na ci lu baax la ndax suñu borom tabaraka wa euh, ku ñaan lu baax mën na laa defal tawfiq may la ko ndax dagan na ci ab jullit mu tukki ci réew yoo xam ne du réewu jullit ngir ngir liggéey yi ah mu koy dagan na de maanaam lu baax la nit ki am béréb boo xam ne mën na faa dem liggéey daan fa teraanga bu jëf leen jullit ak kurul jullit dañuy jëf leen di ci àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn àdduna am na mbubbam moo xam ne ci ab lañ ko tay mbubbam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo tay la jël fa xaalis bàyyi ko fa sallallahu alayhi wa kon doon nañ jëf leen ci wàllu àdduna ak alal ak ci aju waaye nag ñii tukki yi xew nag yu ma ta bàyyi xel la mooy toog ba mu yàgg nga jàpp ne sam réew daal kenn mënatu fee baax kenn mënatu fee am itam lu baax faaw nga tukki ci bitim réew doo a amum koom soo ko deful doo ko am loolu njuumte la crise bi ci àdduna fépp la nekk coono yi fépp a sonn ñenn ñu ci nekk boo xoolee fañ nekkoon bëgg démb ak fiñ nekk tey yàlla xam ne am na réewum réewum tubaab moo xam ne ñun dem nañ fa dafa defub conférence ambassade bu Sénégal ba na nit ñi doon ràññee fii ci Sénégal di dem foofa ñooñu waa réew ma noonu la ñuy ràññee pour ñëw Sénégal ñoom itam wut si fi ay suuf ak ay mbay ak yu mel pour ñëw fii ci jamono yooyu ngir bëgg liggéey si kon xam nga ne yëf su fekkee ñooñu ñooy ràññee ci ambassade bu Sénégal di wut visa pour ñëw fii pour liggéey xam nga ne kon euh, yëf yi euh, demewul noonu waaye jóg jékki-jékki mag ba dugg ci ay gaal di dem fenn fu nga dugg fa xeeti coono yu mel noonu ñii di faatu ci yoon mel ni ku jëm ci loo xam ne euh, lu munta ñàkk la mbir yi moom demewul noonu te ñu ci bari ñu dem foofu ba àgg dañoo mujj dugg ci guddi goo xam ne man gisuñu luñ def ba nag mënu ci ñoo ne Italie la nekk nee na moom day liggéey sax ci wàllu ay ay daayira ak yu nuróog yooyu nga xam ne bu weer wi dee day wër nit ñi di leen laaj nee dafa dugg ci lu mat ñetti kër yoo xam ne ñooñu ci ñi dàqoon a joxe ci réew moom ci lañ bokk nee na fenn fu ci nekk bi mu demee daa fekk ñu taal ay sondeel coupé ñu coupé leen courant bi te mënuñu koo fay ñu taal ay nee na dama leen a duusa laaj sax li taxoon ma jóg ma ne ko waaw mu ngoog léegi nag koo xam ne boo demee ba foofa ba racc ba toog ba noppi yor say kayit yu mel noonu loolu mën na laa dal kon wax dëgg yàlla foofa nag dooratul ab jëmukaay waaye nag ñu xam ne euh, responsabilité bi partagé la maanaam kenn ku ne am na ci sa wàll ndaw li na jéem a góorgóorlu na jéem a tàggatu na jéem a def formation na jéem am métier waaye état it am na ci responsabilité ci ubbil ndaw ñi ay tàggatukaay ndax nit ki daa war a am métier ñëpp état mënu leen jël ñuy liggéey waaye nit ñëpp war nañoo xarañe métier ba mën a dem liggéey beneen bi ci des mooy responsabilité bu mag a mag boo xam ne ñi yàlla jox alal dañu nekk ci réew mi am nañ ko fii mu nekk boo demee ci réewi tubaab yooyu gars yi di daw di dem ay boroomi alal ñoo ubbi àll bi def ko seen i tool def ko seen i usine def ko seen i nangam buñ dikkee ñoo ñu jël leen di leen liggéey loolu di leen fay weer pourtant ay boroomi alal yu mag a mag fi yoo xam dañoo jël seen alal denc ko ci banque bi rek dem toog ñooñu nañ dem ci àll bi xotti wut ay tool ndaw ñu ñëw liggéey foofu ubbi ay usine ndaw ñu ñëw liggéey foofu état bi defal leen ay jàppandal ñoom itam loolu jàppandi yu mel noonu daal su amee ci la ñuy tabax am réew économie ci lay mën a tabax taxawe am réew naat maanaam réew mi li koy naata bu dee mbay fii lañ koy bayee bu dee industrie fii lañ koy liggéeyee adduna bi dox bépp ci noonu la doxee fii ne foo dem adduna ma ngay dox di dem ci diggante mbay ak càmm ak industrie ak yoo xam ne ci biir réew ma lañ koy liggéeyee yooyu borom alali réew mi ak borom man mën yi war nañoo liggéey ci loolu ndaw ñi def formation liggéey ci biir loolu réew mi naat njub gi tasaaroo ñu dem ñu mujj ci gaalee faatu gi ñu faatu ci yoon yal na ko yàlla jàpp na defe euh, bu mujj bi dana xaw a génn sax thème bi tuuti waaye ginnaaw bu am solo la rek ñu mujje ko dafa ne jigéen ji moom nan lay tànne boroom kër jigéen ji nan lay tànne boroom kër euh, ku góor ki ni mu war a tànne boroom kër rek ni mu war a tànne soxna rek noonu la ko jigéen ki war a tànne borom kër moo di lislaam dafa joxe ay critères ay melokaan yoo xam ne yii yow mii wut soxna kii fexeel ba am ko yow mii wut borom kër fexeel ba kii nga am ko loolu la lislaam yow ku jigéen kii wuti borom kër borom eh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su fekkee am na ku ñëw koo xam ne am na jikko am na diine am na dik jikko am na diine nee na may leen ko soxna ida ataakum man tardawna xuluqahu wa diinahu fa zawijuhu su fekkee nit ki ñëw na daal am jikko am diine may leen ko soxna waaye nag yow mi wuti soxna am na luñ la wax maanaam bu bul ñëw fi béréb ne man kat am na jikko am naa diine kon par force da ngeen maa war a may soxna déet na lu ñu wax nga gànnaa yow kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee wut nag ba am loo mën a yore soxna ba noppi nee na yaa maachara shabaab yi yéen boolem ndaw ñi képp koo xam ne ci yéen mën naa denc soxna maanaam am na lu mu ko yore foofu lay wax man istataa jooju am loo ko yore la nee na kooku demal takki soxna yow mi amut loo ko yor man lam yastati ki amut lu mu ko yore fa alayhi bi sawm yow mi ëmb la ko yor deel woor bu mu yëg ko noonu mu fegal la sa bànneex fa innahu lahu wijaan lu tax ma firee ko ne am loo ko yore la mooy ñi am na nit ñoo xam ne damay dégg ñu koy firee ne man istataa minkumul baata mooy ku am kàttanu sëy maanaam koo xam ne góor la daal déedéet du loolu su fekkoon ne loolu la kay exception bi man lam yastati ji du am parce que ki ko mënul kooku koo mënta sëy li ma lu tax muy woor kooku kay kenn du ko woorloo bu fekkee ne amul kàttanu sëy kon fa alayhi bi sawm ji day daal yàqu waaye man istataa minkum albaata falyatazawaj ki nga xam ne charge yi yor doomu aadama ji jigéen laaj am na ko na dem wuti soxna ki amut lool man nga dem liggéey te dimbali koo koor ba keru muy am kon yow mi ñëw yor loo xam ne man nga cee yor soxna ak lu mu néew néew nag waaye ginnaaw mën naa yor doomu aadama daal ab départ la su ñëwee indaale as am amam indaale ngoram ak diineem ak jikkoom kooku may leen ko soxla loolu mooy orientation bu jëmee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen ji moom yooyu la war a xool kii daal mën na maa yor te itam borom jikko la kon dana ma yërëm borom diine la kon dana ragal yàlla kon man kii laa bëgg waaye yeneen ya nag nga xam ne nit ñee ko tegal seen bopp askan fu mu bokk ak daa nga am la bokk ak yooyu yëpp nit ñi ñoo ko tëral seen bopp loo xam ne lu sharia la yàlla na borom bi tabaraka wa taala def tawfiq ci jàppandal lépp wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullah